mbokku téléspectateurs yi seetaan seen télévision Futur Média dimanche bu nekk ci waxtu wi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nuyu nañ leen béggee nañ leen ziyaare nañ leen ndax dimanche bu nekk ci waxtu wi da ngeen ñuy bàyyi xel muy émission bi nga xam ne yéen a ko taamul seen bopp muy jongante di am ci télévision Futur Média. mbokk yi nuyu nañu bu baax baax ñi nga xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi di fi daan seen doole lépp loo xam ne liggéey nañu ko yal na ko suñu borom tabaraka taalaa taala ful ba mu doon loo xamante ñëpp nañ ci xaj ñu nekk ci réew mi amuñu liggéey nasaraan di ko wax chômeur ñoom ñëpp yal na leen yàlla may liggéey boo xam ni dinañ ci mën a tedd teral ci seen waajur teral ci képp koo xamante ni xaj na ci waaye mbokk yi ñu nekk bitim réew nasaraan di ko wax immigré fu waay mën a nekk ci àdduna wërgal këpp yal na la yàlla may teraanga boo xam ne dangay ñëw investir ko fii ci réew mi Sénégal ndax jàmbaar dawul dafa wuti doole may fàttaliku sama rakki bopp yi sama goro yooyu nga xamante ne nga ci Italie Babacar Ndiaye ñoom Bakka Samb ñoom Aïda Samb ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaare bu wér-wér di leen ñaan yal na leen yàlla may xéewal goo xam ne da ngeen di ñëw investir ko fii ci biir réew mi Sénégal ak sama doom nday mari sàmb mbokk yi ñi caabi féete ginnaaw ñoom ñëpp yal na leen yàlla may liberté ndax liberté dara dàqu ko waaye du ñu fàtte mukk ñi nga xam ne ñoo feebar tëdd ci lal l'hôpital yi ak sax kër yi ñoom ñëpp yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu siwaat ci seen sago mbokk yi jongantee ngoog ñu ci ànd ak yéen dimanche bu nekk bi mooy ñaareel bi dimanche gannaaw bi ñu jëlee congé ba pare ñu dalal Bombardier émission bi comme ni ko xale yi di waxee am buzz lool réew mi seetaan ko bitim réew seetaan ko ñëpp di ñu ñaanal ne fi ñu teg suñu tànk foofu la mbokk yi fas yéene wuñ koo teggi ndax dama leen ne ci saison jongante bii di quatrième saison dañoo bëgg ngeen gis ci beneen Futurs Médias bu bees dañoo bëgg ngeen gis ci beneen Lamine Samba bu bees ñu indil leen lu bees amul xuloo amul xeex amul xaste amul wax lu ñaaw lu li ñu yitteel rek mooy saa yi ñu paree émission rek ngeen bégee waaye mbokk yi xoolal ñi nga xam ne ñoo ñii la ñuy wax lee les les professionnels de la presse bi ñu génnee keroog dimanche ñëpp ñu woo Khalifa jaxate Boubacar Diallo Pape Cheikh Diallo ñoom Keps ñoom Amina Poté ñoom ñëpp ñoo ñi nga xamante ne nii mbokk yi ñoo ñoo ñoo nekk ak ñun fii ci biir kër gi ñoom ñëpp ñu woo di ñu béggee ma ne leen nag fi ñu teg suñu tànk fas yéene wuñ koo teggi waaye man mbokk yi dama teggi sama tànk taal sama oto dem fële nga xamante ni moom mooy benn tali xale boobu nga xamante ne ni yal na ko yàlla musal ci cat muy musli couture moo ma solal mbokk yi ne ma tey dama lay génnee noir et blanc ba ñu xam ni ki ko mën la ak ki koy jéem xëyum 404 bokkul ak ngontum avion mu solal ma yu lu yànj lii ne ma sa deuxième numéro la te ndaanaan ngay dalal ci wàllu làmb ji moo tax ma solal la lii numéro téléphone am 77 531 01 01 77 531 01 01 kooku mooy Mously Couture ñàkk ko mos nag wóorul mbokk yi kon émission bi yéen a ko moom yow mii di ma seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew mbokk yi gannaaw bombardier tey nag maa ngi dalal ndaanaan ci wàllu làmb tey maa ngi dalal kilifa ci wàllu làmb tey maa ngi dalal koo xamante ne nii mbokk yi lu ne def na ko ci wàllu làmb waaye nag du mbër dama leen di génneel suspense bi du mbër képp koo xamante ne nii trouvé nga ko moom mi nga xamante ni moom laa invité te mu doon kilifa gu mag ci làmb ji moom dana la jox grand bubu ñetti morceau yu baax

waaye ku mag la ci réew mi kilifa la ci wàllu làmb ji koo xamante ne ni mbokk yi bu nee dama ne ñëpp déglu ko ndax li mu def ci làmb ji ku xam kan la wooteel ci numéro yooyu 88 628 22 22 88 628 22 22 88 628 65 65 am na ku nekk ci ligne bi du jaan jekko gaa ñi namm nañ la amateurs yi namm nañ la man mii maa ko wax allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna si maa ngi si are na ngi dellu saa yu ñu ubbee émission jigéen dugg damay kontaan ndax dama bugg sama yaay lool ma koy ñaanal yàlla yàlla woyofal suuf ca kawam euh, soxna si noo tudd. Kumba. ah. Kumba. Kumba fooy woote maa ngi wootee Parcelles. Kumba kan laa invité. Euh, promoteur Aziz Ndiaye. nga ne promoteur Aziz Ndiaye laa invité. bul raccroché ñu jël sa numéro mais Kumba sa digganteeg yàlla namoon nga jongante. bu baax. loo gënoon a namm ci jongante. nga oh, <laughs> man rek ci xale. dañ may jiiroo ma bay des. ok xam nga. waaw waaw xam naa léegi euh, sa numéro téléphone bàyyi ko ci régie bi 88 628. vingt 22. 88 628 65 65 88 628 04 05 ñiy wootee ci bitim réew numéro téléphone baa ngi newnu muy 33 841 22 99 mooy numéro bi nga xamante ne nii ñi nekk ci bitim réew moom la ñuy wootee grand Cheikh Gueye yaa nga ca Italie maa ngi lay nuyu bu baax a baax gis naa teraanga ji foofu nga xam ni ci Italie teeru nga ma fa lool mbokk yi li ma bëgg mooy ngeen woote wax ma kan laa invité kilifa la ci làmb ji kilifa la ci réew mi li mu def ci làmb ji du mbër nag ñi ko fi def bariwul moom laa dalal tey mbokk yi ndax ñëpp a ngi doon xaar mbër ma ne déedéet ku dul mbër ak kii mbër yëpp ci làmb ji lañu ñu bokk kon woote leen rapidement ci numéro yooyu nga xamante ni moom laa leen di jox ngeen euh, barkeelu ci waaye laataa loolu damay féliciter Medoune ASC e Jubo bu Cambérène 2 ndax ñoom waaw bii mooy seen ñaareeli at ñu jël coupe bi ndax daaw demi-finale la ñu yemoon ren ASC Juboo jël coupe bi kon ASC Juboo Cambérène 2 maa ngi leen di féliciter bu baax a baax di leen encourager di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ASC jubo ndax waa Juboo danoo Juboo moo tax ñu jël coupe bi allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum waaw sang bi noo tudd ak fooy woote maa ngi wootee Kaolack. noo tudd. Ousseynou Diallo. Ousseynou waaw Ousseynou namoon nga joŋante. moom kay. loo ci gënoon a nam. xaw sànq yi xam na waar de noire mais tey nga gis loo mës a gis. nga ne kan laa invité. Euh, Tafa Bambara. ah Tafa Boy Bambara. waaw jërëjëf kontaan naa ci yow. kon mbokk yi mu ngi noonu ku nekk ak ki nga xamante moom ngay wax woote leen ci numéro bi waaye Médoune bu ma jógee ci ASC Jubo dafa am benn ASC boo xam ne dama koy defal mention spéciale. muy ASC Mengo te tuddoon ASC Las Palmas ndax bu leen fàcc ni Mengo Medoune Diouf li mu def ci lam li mu def ci ci nawetaan yi doy na waar naa leen ko nettali léegi su ma ñëwee jël ki nekk ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaw ndeysaan buuxante bi ça se voit ñëpp ñoo ñuy seetaan waaw keneen mu ngi ci ligne bi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum yaa ngi si jàmm. waaw sang bi wàññil sa tele bi tuuti wala nga génn fi télé bi nekk. waa génn naa fa génn naa fa. waaw allo noo tudd. man Mamadou Sarr laa tudd. Mamadou fooy wootee. maa ngi wootee Guédiawaye Medina Gounass. Medina Gounass kan laa invité. Luc Nicolaï. Luc Nicolaï laa invité jërëjëf Mamadou bul raccroché ñu jël sa numéro. bu ko defee ah. ñu léegi léegi léegi ki ma invité. ki ma invité dina la jox benn ñetti Abdou Bazin bu baax. bu rafet ci kattanu yàlla incha allahu rabbi ñu jël keneen ki nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam Lamine Sawa. bi sant yàlla noo tudd. Euh, Ousseynou Diop. Ousseynou Diop fooy ndand euh, Ndande. Ndande Ousseynou namoon nga jongante. waaw waaw bu baax a waa waaw Ousseynou loo gënoon a namu ci jongante. waaw yow ga gënoon a xam ne wax yàlla. ndeysaan maa ngi en chair et en nos man rekk ci xale. waaw waaw <laughs> illallah. waaw Ousseynou kan laa invité. Luc Nicolaï. Luc Nicolaï laa invité. waaw bu raccroché ñu jël sa numéro téléphone waaw euh, Médoune dafa tuddoon ASC Las Palmas ren mu ñëw tudd ASC Mengo dem demi-finale waddal fii miij daan déggoo kooku Médoune kooku bu demee ba ñu élimine ko demi-finale kooku jaanam wàcc na ndax lii mooy première année waaw kon non déedéet ñi reerul tey bari na waaye nañu reer te tëdd te nelaw te xam ni lépp lu yàlla def rek loolu la ñu ciy gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ni mooy mooy mooy Assane Ndoye mooy Abba mooy Ibou si mooy Massayer Cissé ñoom xam nañ fi may waxee ci kàddu biram si ñooñu xam nañ fi may waxee bu baax a baax kon ay ASC Mengo muñ leen dem entraîné waat ta xam ni bi mooy seen première année ngeen dem demi finale ci kattanu yàlla déwén finale ngeen jëm ñuy encouragé daaru mi nga xamante ne nii moo leen dóor di dem final kon nawetaan foola ak reela kenn ku ci nekk nag euh, Abdoulaye mun ngaa faral équipe bu la neex waaye nañ ko def ci jàmm nañ ko def ci salaam bañu xulo bañ a xeex ndax nawetaan àndul ak xuloo ak xeex ndax ku dóor ku dóor déggoo dóor fiic mi la dóoree nga war a xam ni yàlla moo ko dogal sport nag ñette ci am match nul victoire wala défaite tey défaite la jël leen ko félicitations encore une fois de plus ASC Mengo waaye jaaraama ASC Jubo bu Cambérène su ma ko waxee rek sama xel dem ci sama ndeysaan sama waa kër yi ñoom Mbacke ñoom Papa ñoom Ablaye ñoom Junior ak sama soxna ñoom ñëpp bëgg lool ASC bi moo tax keroog bi ASC bi jëlee coupe ñoom kontaan nañu lool am na mbokkum nekk ci ligne bi allo. salaamaaleykum salaamaaleykum waaw waa Samba. waaw sang bi. noo tudd ak fooy woote. Babou Ndiaye. ah. Babou fooy woote. Grand Yoff Dakar. Grand Yoff Dakar fan ci Grand Yoff. Arafat. Arafat kan la invité. man de kii laa jàpp Alioune ah président Alioune CNG. waaw. waaw bu raccroché ñu jël seen numéro mais yow lan nga gënoon namu ci jongante. kan man. yow waaw. kii rek. Ah. sant yeeg yooyu daal. sañ sa yeeg salañ salañ yi. <laughs> waaw man rek ci xale. <laughs> waaw yow doy ma bay des 88 628 22 22 88 628 65 65 88 628 04 05 mooy numéro yi nga xam ne war ngeen cee mën a woote Pape Lam wàññil sa loxo yaay jinne photographie del fole formé photographie ngir li ñuy photo mu leer képp koo xamante ne nii photographe nga nga nekk ci réew mi ñëwal Pape Lam mu lay formé ndax sa photo leer. Pape Lam kenn du yow salaamaaleykum kii mooy nag dernier appel laataa ma lay wax kan laa invité allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sang bi maa ngi lay ziare. maa ngi lay delloo ziar. waaw mais sang bi noo tudd. man Mbaye Gueye laa tudd. Mbaye Gueye Tigre de Fass. waaw gis nga. <laughs> waaw fooy wootee. man maa ngi wootee Fass. Fass ci fan. Ah, Toulon. yow xam nga xam nga ñaata Fass moo am. ñaata. ñaata Fass moo am. ñaata Fass. waaw. benn Fass. am na Fass Delorme am na fas Louveau am na Cas Fass Casier am na HLM ah, Fass. man man de man de Fass rek laa xam. ndeysaan wax nga dëgg wax nga dëgg waaw euh, namoon nga jongante. torop torop torop torop. loo loo gënoon a namm ci jongante. jongante daal lu mu si gënoon a namm. waaw. mooy sa sañ-sañ. ndeysaan tey nag 24 laa indi woon waaye ne nañ ma. nee nañ ma hmm. 24 yi daa ëpp freiné nañ ma dañ ma freiné tey moo tax ma génn fii rek euh, kan laa invité ah. kan laa invité yow sëñ hmm. Modou Niang sëriñ Modou laa invité waaw jërëjëf bul raccroché comme ça ñu jël sa numéro nee naa ki ma invité maa bàyyi ma jëlaat ñaari numéro ma wàññi ma wàññi damay jëlaat ñaari numéro dama leen di wax ni promoteur la dama leen di wax ni tëgg na Balla Gaye tëgg na Yaxya Yóob Yékini tëgg na Moustapha Guèye mayam fa tëgg na Eumeu Sène mayam fa waa sama réalisateur nee yem fa promoteur la ñëwul pour jouer les grands rôles euh, les petits rôles là ci ci làmb ji làmb yu mag yëpp moo ko tëgg dama leen di dimbale ndax ñu tëgg ci làmb yu mag yi bari ma jël ma jël dernier appel salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa sang bi yokkal baat bi tuuti. allo. waaw maaleykum salaam. sëñ na ngeen def. noo ngi sant sëñ bi noo tudd fooy woote. maa ngi tudd Mbaye Diabaye di woote Italie. ah man de kontaan naa fan nga fan nga wootee ci Italie. Vicenza. ah man waa waa Meldo laa la waa Furli laa la waa Furli Meldo laa <laughs> foofu la samay bokk nekk ana waa Italie. ñëpp a ngi ci jàmm. waaw maa ngi ziare bu wér-wér namoon nga jogante. waaw jongante namoon nañu ko kay. lan nga gënoon nam ci jongante. Euh, au fait euh, man euh, émission bi duma ko doon suivre daal mais xam naa ne moom li ngay sañ see rafet na trop. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf léegi kan laa invité. monsieur Alioune Sarr daal laa foog ne moom nga invité. monsieur Alioune Sarr d'accord pour bu raccrocher comme ça ñu jël sa numéro. bu fekkee ni dëgg la ki ma invité. dina la may ñetti abdu waaw keneen ki nga xamante ne woon maaw defal ndànk damaa bëgg mu leer dama ne ki ma invité dina joxe ñetti abdu basin ku sës ci moom après naa wax tur bi dina joxe fukki junni muy ñetti abdu basin ak fukki junni loolu leer na waaye Maawo Cissé Maawo Cissé Maawo Cissé Maawo Cissé laa invité. na àddatu la Aziz production ñëw na Aziz Ndiaye ñi mu boole loolu moo ma talaaj nag Aziz Ndiaye ñi mu boole combat bi réew mi soxla Aziz Ndiaye mu boole bilaay fu tegee dana neex Seri Miss Ndiaye ñi mu boole yaay ja da koo ñaanal sa Aziz Ndiaye ñi mu boole baay ba da koo ñaanal Seri Faty Ndiaye ak Awa Seex Momar Ndiaye sa baay réew mi xam na ko bàyyi leen dëkk ma su ma doxee seen combat la bañ defuma la mbokk yi mu ngi noonu Aziz Alen Ndiaye doomu Alaaji ale Ndiaye ji rakki jàmbur maa ngi lay ziare. maa ngi lay ziare maa ngi lay béggee bu wér a wér. kontaan naa ci yow. maa la gën a kontaan. parce que wax naa ni je ne suis pas le meilleur. Mhm. mais je fréquente toujours les meilleurs. alhamdulilah mais tu fais partie des meilleurs. xam nga loolu. Ah. damay xaar ñu waxal ma ko. waaye nag soo dul woon meilleur. Hmm. doo teew ci émission bi kontaan naa ci yow. maa a kontaan maa ngi bëgg ci yow Aziz soyez les bienvenus. maa ngi kontaan ci yow lool. maa a kontaan am naa kontaan te lool ci yow. Hmm. ci invité la ci deuxième numéro. ko joŋante. ndax ñëpp xam nañu ni dañu nekkoon congé. ñëpp xam nañu ni aussi tamit Bombardier la ñu invité woon ci premier numéro bi. j'ai avec suma staff ñu ne dañuy changer tuuti parce que mbër ci làmb ji la bokk mais promoteur ci làmb ji la bokk na ñëpp xaar. ñu invité leen ci émission bi ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan jongante deuxième numéro quatrième saison. jërëjëf euh, El Hadj Lamine maa ngi lay nuyu di am contentement bu baax a baax di dellusiwaat fii ci émission jongante di nuyu kilifa kër gi mu Youssou Ndour di nuyu suma xarit aussi Ndiaga Ndour bu baax a baax di nuyu l'ensemble des téléspectateurs bu Télé Futurs Médias nga xam ni vraiment ñu koy seetaan ñëpp euh, mën naa ni nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew su ma nee bitim réew rek damay nuyu suma xarit boo xam ni mu ngi nekk ba Amérique ñu koy wax boo nee ne xam naa actuellement mi ngi restaurant Jacob du ñu seetaan di jiital ci nuyoo bi nag suma ay waajur suma papa El Hadj Alé ak suma yaay Khoudia Diop ak suma ay tante ak sumay mbokk ak sumay frère yëpp ak suma xarit Elimane Lam di nuyu yëpp di nuyu vraiment aussi ñi nga xam ne nii tey yaakam ci woon nañ gis Aziz mu ñëwaat ci plateau bi waxtaan ak sénégalais yi ci wàllu làmb mm-hmm. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax mm-hmm. di nuyu aussi suma sëriñ sama turandoo sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine mm-hmm. di ñaan yàlla na yàlla yokk fanam yàlla na yàlla guddal fanam te yàlla na ko yàlla dëgëral ci barke sëriñ Babacar li tax euh, ñu invité la la Aziz euh, def nañu casting ah euh, def nañu casting xool ni ñun toujours li ñu bëgg mooy au sortir de suñu émission yi ak concept bu bees bi ñu indi maanaam euh, ku ku nekk exemple ki nga xamante ni nii il est parti de rien pour devenir quelqu'un aujourd'hui maanaam doore fa dara dul dara ba dara tey nga door doon dara tubaab ne ko c'est en forgeant que l'on devient forgeron léegi ñu bëgg nag askan wi ñu bëgg xale yi jël ci yéen exemple parce que ñun comme saison bi ubbeegul dynamique bi lañ bëgg a jël moo tax dañuy expliquer tuuti concept bi bëgg xale yi jël ci yéen exemple xam ni Aziz xëyul xëy sotti dafa xëy am fi mu jaar fi nga jaar nag mu ngi ñu woon jaar fépp mhm. mais am na ci yoo xamante ni jaar nañu fa ma lay baalu àq mhm. parce que dugg naa ci sa intimité mhm. ma lay baalu àq dugg naa ci sa famille te askan wi laay xool ñu xool ma ma ne la ma def yëguloo ci dara maag Baye Ndiaye ak Alaaji Maaw Cissé ak Médoune ñoo la ruube noonu dugg ci sa biir fami <laughs> ñi nga musul gis wala ñi ñu musul gis ci tele ñu waxtaan ak ñoom mhm. ñu wax ñu kan mooy Aziz liñ ci jublu mooy bu émission bi jeexee ñu ne ah ndekk Aziz fii la jaar mhm. ñëpp xam ni du sàcc moo yor réew ñëpp xam ni du wuruj moo yor réew ñëpp xam ni li yor réew muy liggéey ak maanu mhm. au sortir de l'émission loolu la ndax tey su ma naroon tey toog invité Aziz di waxtaan ak moom ci làmb bi li mu wax sama plateau moom la waxoon ci Bekaay moom la waxoon ci Malick cand moom la waxoon ci Pape Alioune bay moom la waxoon ci keneen ak keneen dañu bëgg au sortir de l'émission ñëpp gis ni ah ndekete Aziz lii la ci lu dul làmb bien sûr ci lu dul làmb loolu mooy concept émission bi lu temps que nag ñu dajale suñu ay mbër di euh, def ak ñoom li nga xamante ni moom mooy combat le défi ngir wutal leen ay combat mm. waaye Aziz fi ñuy tooree ku sës si yow la ku la bëgg la koo xamante ni nii mën naa wax ni a ah, lu doon wuti Aziz bu ko séenee da koy gàttandu muy lu baax ak muy safaan wi mm-hmm. ku la jege la mbokk yi seetaan leen ko te déglu ko bu baax a baax a baax ndax lu jóge ci xol ci xol lay dellu déglu leen Lamine maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu Médoune ak Mao di nuyu Aziz grand frère bi toog ci plateau bi tey tey Aziz Lamine mën naa ni mooy suma mag nekk suma papa nekk suma yaay comme ni ma ko yàgg di waxee laa koy waxee man bi ma fàttalikoo 91 la ñu boole man ak Aziz ak suma benn frère bu ñuy wax Ahmed boolu ñu bu ñu daara sëñ Maodo Diop Medina ñuy jàng man jamono boobu ci laa njëkk jàngatee kan mooy Aziz di tax ma jàngal ko mooy dañu jàng affaire bi xam nga daara dafa metti nga nekk si kër pap ba mu neex la gisatoo ko loolu lu metti la. ñu toog bi benn jour rek mu ne dañ nañ ñibbi fekk sama papa demoon màkk jamono boobu ma ne ko na lay def pour ñibbi mu ne léegi da ngeen génn ci biti ngeen xaaral maa ngi ñëw mu génn fekk genre fàq lañ doon def sax ko bu ñu génnee mu dawale ñu ne na daw leen jamono yooyu saam moo amoon quoi fa la Ndiaga doon taxaw ak oto yi ñu dem saam daw jël oto waa ci géejawaay croisement saam mu ne léegi dem leen kër ga maa ngi ñëw suma waa kër gi laajtee ngeen leen dama fu ma dem. waa kër gi laajte ko ñu ne ko Aziza moo ñu indi ba fii dawoon am na fu mu dem léegi sama benn nijaay léegi yóbbu ne leen dem yóbbuwaat leen bu ñu demee ñu jël Aziz fekk suñu benn kër sama kër ñoom géwal papa fa la nekkoon toog laaxatu foofu bu ñu ñu jëli ko mu ñëw ñu ànd ñu demaat bu ñu demee sëñ bi dóor ko mu bëgg a dee ne da koy takk ak yooyu li tax ma lay nettali loolu dama lay woon fonk gi mu bëgg rakk rek ak li mu bëgg mbokk tey bu doon dem mënoon a dem moom kase mais dafa dem yóbbaale ñu yóbbaale boobu nag ci lañ nekk nii ba tey depuis jamono boobu ñuy ànd di juyoo ko daanu léegi-léegi ñuy jàng bu vacances jotee ñu ànd dem stade amul bari fekk yoroon na benn siyaawoo ñu si daan loué engin bu ñu loué man maa yoroon benn troto man moom ma jëndaloon sax pour ñu ci loué bu ñu loué ba ngoon ñu dem séddoo xaalis bi ànd demaat te ñoo lañ ko jàppe woon daal muy ku bëgg liggéey ku fonk ay waajuram ku fonk ay mbokkam ñu jugee fa loolu ci diggante bi dem na fi benn poulailler la fi yoroon pikin bu xëyee daan fa dem ak benn copain bu ñuy wax Kader mu ngi tey di jaay foofu ay ginaar di yar ay ginaar su gàmm jotee même chose mu dem Tivaouane jaay boisson jamonoy Lisa dem Ndiassane ci loolu ma lay wax nii ci ci biir jamono yooyu sax danaan dem sax di bëre ji tey lii mën nga laaj Mor Faram parce que écurie Mor Faram la daan entraîné moom ñoom liiru jaan ñoo fa nekkoon woon ak euh, ambulance mi tey ñoom ñëpp lañ daan entraîné ci dini nekk géejawaay ndax bëgg a nekk mbër bëgg gëm boppam bëgg na ci liggéey bëgg a tekki rek façon bu ne tànte na ko xam nga li ñu naan taal bu taw tàkk moom côté bu ne nga ko ëppee rek ci lañ jógee 2000 jot man ma jógee daara ja Fass Touré 99 sama papa jox ma ko ñu ànd di liggéey mu nekk Sandaga jox ma benn place dama gérer place bi may gérer place bi man kese a fa nekkoon bi ma dawalee ay quelques mois ma ne ko saa yi liggéey mu ngi commencé bari te atul ma ko man ko oto ñoo booleel. mu dem indi sama beneen frère Ahmed ki nga xam ne ñoo bokkoon nekkoon daara jëm indi ko mu yor ko ñu ñu gérer place man ak moom. affaire bi di màgg ñu démarré ci benn place ba mujj dem ci ay ñor ay quatre places yooyu. liggéey bi di dox jamono boobu lañ doon tëgg làmb ci lañ tëggoon combat Balla Beye 1 ak Pape Faye 2005 affaire yi def buzz ñu commencé Aziz Ndiaye kërën kërën ñu dund dund dem ba 2008 affaire yi xar xaw a taxaw après sama papa nañ bàyyi leen ñu bàyyi taxaw. jamono boobu nag mu ngi ci difficulté yu metti parce boobu ci la soog a takk deuxième femme bi maa ngi koy nuyu de sax miss ak maam bi te ay nit ñu mën a muñ lañu parce que tey di nga nekkee sa jëkkër moom ay problème mën a muñ du toog ci kër rek bu la neexoon mu nga gën di laajte ji di ñaan mais fekku lañu dañu toog rek garder seen seen ngor boobu liggéey bi metti na Aziz dem na ba tur bi mu ngi fi mais fi mu tolloon ci financièrement tollatu fa yoratul xaalis comme ni ma ko mën a waxee. oto bi muy dawal sax boobu mu ngi yor benn Mercedes 250 oto bi dafa amoon problème mu douane parce que fayoon na douane mais ni mu ko fayee baaxul oto bi njaab la comme ni mu ko mënoon tuddee parce que dañ ko ko jaayaan xamoo ci dara fu ñu tënee douane yi nangu oto bi di ko nangu di ko sonal ba mujj dem mujj ko bàyyi ak ñoom Aziz da doon xëy day am sax problème mu dépense te 2008 ak léegi xam nga loolu yàggul sonn fi coono boo xam ni kenn mënu la ko expliquer. bu ñu toogee ba affaire yi xamatuñu luñ nduru mu ne ma gaynde ma ne ko waaw mu ma daal lenn mooy mën a am comme yaa ngi ci man te ñun ñëpp ñu bokk di sonn dama la Italie nga liggéey man am naa visa Amérique dinaa dem Amérique liggéey ma ne ko boobu boobu dara sa surtout loolu moo fi sës. tante nañ ba sonn affaire yi mënul sotti loolu laal rek day gën a yàqu. tey nit ñi woy sa waay yoratul xaalis perte na mu àndax ngoram te loolu yëpp mosoo ko ci dégg mu gën dem lebi xaalisam. benn xaritam sax joxoon na ko fi benn xaalis 4 millions ma dem Chine jënd mu yónni woon ma Chine ma dem jënd ko ay téléphone bi ma ñëwee téléphone yi amoon nañ ci bénéfice mais xaay bi day gën a yàqu. ma ne solution bi lii rek la solution bi daal moo ñu génn dëkk bi ma ne ko d' accord man maay dem mu ma aéroport euh, géejawaay yóbbu bi ñu départ géejawaay ba aéroport saa daf ko jooy ba ñu yegg si oto bañ yegg ñu jooy ñu ñëpp ñu kottante mu ne ma garaawul yàlla baax na ñu ànd dem man ma dem Italie moom mu toog bi ma yeggee ma oo ko ne ko yegg na mu ne ma am nga liggéey ma ne ko amuma liggéey maa ngi fi toog di sube affaire yi di metti di metti may reyante Italie xam nga maa ngi nuyu sama benn mag sax fa laa dëkkoon mbay affaire yi metti nga tàmmoon benn vie bi yor sa oto fii dëkk sa kër yow kase nga bàyyi lépp dem toog foo xam ne ci saal ngay fanaan boo xëyee gàddu ay parasol wala ay tubay di jaayi déggoo làkk bi affaire bi metti chaque jour may toog ba si benn ruq sama ko ne ko gaynde fii metti na mënu ma noonu muñal rek ma toog ma ne ko demagoo fekk dafa ma tàggoon ne dem Amérique mu ne ma demagoo maa ngi fi toog su ma jëlee sama yaay waxoo sama yaay sonn tamit di xam doo mënoo daal parce que papa benn jur la yow kese. jur naa kay doom du jël li mu yor da la ko jox. ñu ànd ci dund ci condition yooyu di dund condition yi ba toog benn jour ma oo ko téléphone ne ko sa waaye na nga def waaw doo ma envoyé sa passeport bi nga doon wax pour ma dem ci Angleterre parce maa ngi bëgg sonn fii. mu ne waaw d'accord bàyyil ba semaine prochaine dinaa loo ma coupé waat. il paraît mënoon sa envoyé xaalis foofu mu may dund ma toog toog toog benn ju rek ma oo ko mu ne ma sa waa lu wees am nga paas man ko am nga paas mooy lan am naa paas wala mooy loolu mooy lan man ko non yoon naa fi benn xaalis mu ne ma daggal bi nga ñibbisi ma ne ko ñibbisi pour lan mu ne ma noonu ñibbisil affaire yi changé na ma ne ko changé na c'est-à-dire yow bi ma lay bàyyi foofu oto bi nga yor sax baaxul da ngay may problème mu sa luwaay pour nga fekk si tu doon problème nga bëgg mu ñibbisiloo ci saay baal ma toog fii rek ñu envoyé ma passeport am na ma sama compte temps mu ngi ci kër yi ma jënd bi ma limal ma lu mat 4 kër ba fi ma nekk nii mu limaale ko ci muy alburax tey ma tàgg bi ñibbisi bi ma ñibbisee aw ma sax fitu wàcc kër ga dama wàcc sama benn kër xarit bi ñuy wax Omar Gueye moo ma jël si aéroport ma toog këram nelaw ba ay 2 heures yooyu mu woo ma téléphone mu woote ci téléphone Omar Gueye ne ko ana bàyyi ko bàyyi nii ko nekkul a ñëw si kër gi mu ne ko bàyyi ñëw de nee na ko noonu la ñëw bi ma ñëwee sama papa ak yéen ma la moo tax nga ñëw ma ne ko ay zmoon yi ma ñëw ah na mu jël ma yóbbu ma këram front de terre ma dëkk foofu mu jox ma benn oto commencé ñu waxtaan affaire yi commencé changé tey li tax ma explique lii sax expliqué moo ko ndax ngir ngir dara dama bëgg sénégalais ñu jàng ci Aziz rek xam ban façon nit la te ñu mu seqal ñëpp man maa ci gën a ndaw tey su mën a expliquer sama yaay soo ko taaloon micro même chose la lay wax coono bi mu dacc ñun ak suñu papa tey moo waral lii yëpp ba coono yow ñu dund ko ba tey affaire yi xaw a tane sant yàlla ko tey soo demoon sama yaay ne ko lan la la Aziz defal bu ma bu tuddee li ko defal doo tudd dootoo ma xoolati sax parce que mu ko jur bër gi dem la ko jëndal taxi jëndal ko camion chaque année mu yóbbu ko màgg yóbbu na ko plus de jëndal ko particulier bi muy dewal sama papa même chose tey dañu toog di waxtaan mu ne ko lan nga bëgg ma defaral la ko paa bi ne ko daal man amul lu ma solo sama doom sama doom lu ma defal baax na mu dem tabaxal ko jàkka suñu dëkk fu ñu dëkk mooy lompul mii bas tabaxal ko fa jàkka miirawaat armée yi tabax fa poste de santé poste de santé tey boo ko defaralee def ba daanaka état nga defaral. parce que lu état waroon def tey benn citoyen def ko kon état bi nga defaral. tey masa suma taaw papa la. Aziz moo ko yóbbu màgg ngañ jaañ xaritam la moo ko dugal ci làmp presque Aziz yóbbu na ko màgg suma taaw yaay wëli Aziz yóbbu na ko màgg barki dem la yóbbu suma rakk yaay yóbbu aawam yóbbu ñaareelam kon daanaka kon Aziz diggante bi mu lay wax 91 ak léegi lu mu yónni ci jafe-jafe ak tey 2015 ba 2016 li mu def tey vraiment nit dafa war a mel xool ci moom gën a góorlu tey jaay tàngal liggéey la raxas oto liggéey la jaay ceeb ak leneen liggéey la góorgóorlu moo ko indi fi mu yegg si nii tey man dama ci fekk lu bare bare bare lépp man ak moom ñu dund ko bu bànnee amee da may gis bu naxar amee da nga may gis tey war naa mën a wax ci moom en tant que frère en tant que mag loolu moo tax may seede kàddu yi ci moom Lamine. mais dégg ku gaaw a jooy la. waaw gaaw na jooy trop tey su amee lu ko naxar yi. il mu dem di ko rayante ci mbedd day toog tëju jooy ba bëgg a dee. wala nga koy woo di koy yedd wala di ko dara su ma ko woon léegi na ko leen Lamine Samba dafa léegi def Lamine Samba balaa wax yow dara day commencé jooy ba nga yaakaar ni kii da nga ko rayal taawam wala dafa am problème nit ko sensible la nga gën a góor góorlu fi nga ko jàpp foofu la mooy de quarant ans nga def ci lu bare bari loo xam ni am nañu dund ba am 100 defuñu ko kon maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal jàmm te fii nga toll ren balaa déwén yàlla nga ko dépassé incha allah. cœur sensible à s'abstenir Aziz commentaire. Mm-hmm. ah c'est fort. c'est émouvant et que. oui bàyyi suma rakk la quoi comme ni nga ko waxee man. <coughs> mënuma wax ci moom lu bari parce que c'est mon frère ñoo bokk ndey ak baay. Mm-hmm. c'est un peu compliqué su may wax ci moom. parce que tey toppul ci man ki top ci man la topp. Mm-hmm. mais à chaque fois soo ko déggee muy wax da wax ne Aziz ma du suma du suma mag suma papa la suma papa la mm-hmm. et c'est très fort mm-hmm. et que li tax moo koy wax yàlla rek moo tax c'est fort et que c'est émouvant mais sant yàlla quoi Aziz am na lu des mm-hmm. nga ma euh. jubluwuma ci nag lii quoi sérieusement euh, man li ma ci jublu mooy askan wi wax naa ko keroog bombardier askan wi jël ci moom exemple ñu xam ni Aziz c'est un exemple tey ba toll fii mu toll. des na parce que dañu ne bu nit baaxee dañu ne ndax mbokk yaa ko wax. Aziz gis nañ caat. Mhm. waxtaan nañu ak moom. caat <laughs> waaw caat waaw caat caatu kër ga. balu tey yow fi nga dugg bari na la. waaw fi mu dugg bari na moo tax ma lay jéggalu bu baax a baax. non amul problème. waaw waxtaan nañu ak caat ah. xam nga lu mel ni tey. Mhm. nit mënul wax ci boppam. dëgg la et souvent tey sooy wax ci sa bopp wala ngay wax sa jaar-jaar. Mhm. da nga ci jublu rek pour joxe exemple. Mhm. exemple mooy. Mhm. ndaw yi bokk ak yow jamono. Mhm. ndaw yi bokk ak yow jamono ak âge. nga xamal leen ni tey doomu aadama. àdduna ñaar moo fi nekk. tey mu neex suba mu naqari. mais ala kulli nit lenn rek moo ko mën a jariñ mooy liggéey. et ndaw li ko war aussi mooy liggéey. c'est-à-dire takk ndigam. fonk ay waajuram. jaamu yàlla. liggéey teg ko ci yoon. yaakaar naa ni loolu. ku ci nekk rek yàlla mun na la suturaal. dëgg la. Euh, souvent dañuy wax ni jàmbaar amul ku yàlla dimbali rek moo am. ku yàlla suturaal rek moo fi am. li bàyyi wax bari na sax lu mu bàyyi. man galéré naa comme tout le monde. Mhm. souvent nag sénégalais yi comme nit ñi sax laay wax. dañuy jékki-jékki gis da nga xëy rek sotti dañuy gis mais li fi ma jaar ak li ma daj. Mhm. ci coono. Mhm. li ci ëpp sax waxu ko. dëgg la mais itam sant yàlla tey. mën naa ne loolu lépp mi ngi suma ginnaaw te li tax ma. mu gën ma neex ki koy wax maa moom ñoo bokk ndey ak baay. am na keneen koo xam ne yéen bokk ndey ak baay. Mhm. waaw wax na mooy caatu kër gi. dëgg la ñu déglu ko. Ah. mag la boo xamante ne ni presque mën naa ni papa ci ñun ndax mag la boo xamante lépp lu ñu suñ papa defal rek defal nañu ko jox nañu ay kër ñu dëkk jox ñu ay oto ñuy dawal may ñu sac defal ñu ñu am teraanga may ñu crédibilité lu ñu bëgg mu yomb tey fu ñu dugg. su que nga ne rakku Aziz Ndiaye laa rek wala genre loo bëgg day yomb loolu lañ genre mag boobu la moom Aziz. jikkoy tubaab lay yor moom il est comme ça nit la koo xamante ne nii dafa am ay objectif am lu mu wax ne lii lay def rek loolu lay def te lu mu bëgg lu mu bëgg a def rek. nit ku kii la daal nit ku am ambition la. li ma koy wax rek mooy na gën a góor góorlu gën a jàpp ay fameem gën a jàpp ay xaritam ndax nit ki tamit loo def lu dul jàpp sa ay mbokk defoo leneen ndax nit ku wax ba nga bàyyi say mbokk rek ci ay mbokkam la la jëmee. as mus na la dóor. waaw du ma ko fàtte rek mus na ma dóor bi boobu maa ngi nekk xale benn jour man ak sama benn sama koo xam ne ñoo bokk papa mu ñu dem dem lido ji suñu benn kër xarit ñu ñëw ñu xool gis oto Aziz si buntu kër gi. après ñu dem ut ay cahier ci boutique bi ñëw ni dañoo jàngi woon leçon rek mu ubbi cahier ñu dem jënd ay kaye ci boutique bi xam ma nag dafa xaw a yeewu mu ñëw ubbi cahier gisul dara rek mu jël suñu ñaari bopp yi rek boole ko dóor na woon nag ba taay mais instant bi laay doo gis njëriñ li. Aziz Thiat. waaw moom. <laughs> Ah? sama rakk la moom tam la même chose ñoo bokk ndey ak baay. ndeysaan moo koy nuyu de passage. di ci gërëm baay aussi quoi. xam mm. ci loolu la ñu yar moom. Mm. tey ci baay la nekk mën naa ne liggéey baay lu bari moom moo ko yor. alburaax ma ne ku bëgg oto bu set demal alburaax <laughs> man mii maa ko wax danañ la entretenir dañ la danañ publicité gratuite danañ la entretenir dañ la raxas ba mu set. Euh. ñu ngi nekk euh, en face foire bi noonu. ci euh. booru gendarmerie bi. foofu la alburaax nekk ñooy raxas oto yi ba mu set man falaa jëm <laughs> ñëwal comme seetu. comme seetu waaw vraiment wax nga dëgg c'est normal moom ñoo bokk ndey ak baay ndayante la tuddu ñu ngi ko tuddee sama sama benn maam sama benn tante papa lañ ko tuddee kon vraiment moom tam maa ngi koy nuyu de passage. Hmm. saa di dire dóor yeeg ak lu mu mën a doon. moom tontu na nee na lii nga ci bëggoon tey. dafa am lu ñu leen bëggal rek. Hmm. te ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def incha allah. mais am na lu xew. Ah. am na lu ku ku Baye Ndiaye tudd léegi. Uh-huh. Baye da ko tudd wax ni say début fekkee na ko. Mm-hmm. mu nekk kenn ci ñun. Mm-hmm. nekk koo xamante ni nii doyen la ci Futur Média. Mm-hmm. muy Alaaji Ngañ Jaañ moom it seeti nañ ko am na lu mu témoigner ci yow gannaaw mbokk yi am di jàmm yi mbokk yi déglu leen. Euh, ngañ jaañ ñi nga xamante ni nii sax mbokk yi dañoo am xaw ma lan tension yooyu nañ dem yeeyi suukar parce que émission bi tey yëpp ay émotion la loolu lañ ci jublu pour nit ñi jël exemple ci Aziz Ndiaye tey moom la suba mun na nekk keneen ñu déglu Alaaji Ngañ Jaañ Baye Ndiaye mii nga xam ne man bàyyi Fallé Aziz laa ko tuddee léegi te it mu mat ko lool nag ñu bokk ndey ak Baye bàyyi moo ma présenté Aziz fekk may dem Sandaga euh, am yu ma doon doxi doon seet sama benn jarbaat booy jaw mu gis ma nag 2004 euh, mu appréhendé ma ne ma waa père man daal père bëggoon naa nga xamante ne suma benn mag ma ne ko nu mu tudd mu ne ma Aziz dafa dem Amérique mais bu ñëwee jox ma sa numéro dinaa la woo noonu la ñu xamante ne maag Aziz muy 2004. muy xale bu neex a àndal Aziz nee naa leen euh, ku jara kuy ànd ak moom it na nga def attention day sagal nit te ni muy sagalee nit dafa dafa doy waar day dugg ci néeg tëju ba pare. yenu li muy yenu moom boppam ba tegal ko boppam tijji ne la kaay jàppale ma yet la yen la ma lu mu la sant rek mën na ko waaye nag sagal nit daf ko neex sagal nit ci mbiram daf ko neex muy xale boo xam ne 2004 la ñëw ci làmb du 2005 dégg naa am ñuy wax 2005 2004 premier combat am ñu ngi ko waroon tëggal le 12 décembre 2004 Balla Bèye Pape Faye nekkete yàlla li muy dogal mooy dafa ne Aziz le 5 février lay njëkk tëgg làmb ci stade Iba Mar Diop Pape Faye Balla Bèye ca la combat bi ci la ñu ajji combat bi nag muy premier combat Aziz loo ko dama la loo ne woon bu ma doon su bu ma xëyee suba def ko def na ko ci guddi Aziz dafa nekk promoteur ba pare te yàqul liggéeyam ñun ñoo joxe concept 2S man mii maa jox waa 2S euh, concept face à face télé ñaari mbër war a bëre ak 4 jours ñu jàkkaarloo te ubbi antenne yi xam nga Lac de Guiers 1 booy xool sax téléphone yee ko gra njëkk daaneel def naa boobu maa aussi si mii moo ne ca réalisation ba ci 2S euh, Bekaay toog mais loolu maa ko jë Aziz bi ñuy dem 2S maak moom di yóbbu publicité pour ay produit am ci ci ci ci ci ci cosmétique yi mu daan jaay booba baal lañ fa fekk man maa njëkk wax baal da ngeen di def làmb ci ci télé bi am na solo baal ne xam nga baal rek comme grand baal ñoom dañu xaw a tuwaabe na ma na ma na ma jégal bon mu ne ah làmb dafa bari coow ma ne ko def ko rek baax na mu génne agenda wam ne ma tey nag laa koy révélé ne Petit Mbay moo ko boole na ko ku ñuy wax Bécaye ma ne ko ku xam làmb la ndax bu leen fàtte ne Bécaye laa njëkk a présenté Aziz ci làmb ci ci présentateur ki la yóbbu mag euh, te ngeen àndoon ci làmb kooku dootul dootul promoteur ci yow ay suma rakk la suma rakk la ba ci kilifa gi nga xam ne at bu jot mu tuddee ko làmb muy le DG des ADS Pape Mayel Euh, euh, drapo bi mu koy tëggal loolu yëpp sama orientation la woon ndax euh, ku ne xam ne sama diggante ak Pape lu ma ko defal xeeb naa ko te gis naa ne Aziz bu ko tëggalee drapeau dayo bi day gën a yokku dayo bés bi day gën a yokk te boo xoolal dayo bés bi day gën a yokku loolu bokk na ci li nga xam ne aussi bokk na ci li ma gën a ànd ak Aziz ci ci ci ci yoonam mooy drapo bi muy tëggal Pape Mayel chaque année Aziz Alaaji Ngañ Njaay dëgg la vraiment <laughs> Ngañ moom suma grand la mën naa ni suma maître la comme ni mu ko waxee en 2004 la ñu xamante mhm. boobu ak léegi am na onze ans te ànd bu mat fukki at ak benn mën naa ni dafa dëggu mhm. ba comme ni mu ko waxee rek man du bugg sax di wax yu mel noonu quoi mhm. ay yóbbu naa ko màkk wala yooyu c'est pas important li am important mooy relations humaines bi ma seq ak moom mu nekk nit ku dëggu nit ku franc koo xam ni depuis les débuts la commencé ànd ànd nañ mu metti lool ànd wuti sponsor àndi wuti lu nekk ngañ demoon naa ba 2004 ou 2005 bu ma daan voyage moom laa doon defal procuration mm-hmm. pour mu dem CNG mun ma signer suma ay contrat mm-hmm. nit ku baax la nit ku dëggu la nit la koo xam ne vraiment mm-hmm. suma ànd ak moom rëccu ma ko maa ngi koy sant bu baax a baax di nuyuwaale suñu xarit bi ñu bokk nga xam ne muy Pape Mayel Diop le directeur général des ALEDS ADS maa ngi koy gërëm bu baax di ko nuyu bu baax a baax kooku nga daane leen noonu moom la ñuy wax boroom ndakaaru hmm. ñi ne ak Cap Vert ma ne astafirullah ak Cap Vert ak Cap Vert moom it dem nañ ko seeti <laughs> waxtaan nañu ak moom. non dugg naa fu nekk. mais noonu la ah. parce que exemple nga te dañu bëgg au sortir de cette émission ñëpp hmm. xam fi nga jaar. Hmm. waxtaan nañu ak le directeur des ADS Pape Mayel ñu déglu ko mbokk yi. Aziz dafa koo xam ni lu muy def lu nekk dëggu ci moom ba may njëkk tuddee làmb stade nu toog. ñu koy interviewé ci RFM mu ne làmb ji Pape May laa ko tuddee loolu laa ci am bon tuddee ma ko woon pour am am tuddee ma ko woon pour lu ma neex daf ko def ndax daf ko sentir ci bés boobu may wax nag ni ku neex a àndal la ku naqari àndal li tax dafa neex àndal dafa dëggu dafa jub lu tax dafa naqari àndal boo dëggul juboo du mën a def ak yow te nag Aziz am na lu jafe ci génération yàlla dimbala nga mën sa bopp ba pare am yar koo gis mën ko jox cër loolu lay wax jëmm jiy toog te di wax ni la wax naan day bàyyi làmb mën ko bax waaw mooy li alaaj ngañ wax ku jëm ci événementiel xam na na mu koy préparé ak na mu koy defee. souvent dañuy gis ni prom yenn ci promoteur yi dañuy tuddee nit ndax xaalis nga doon kilifa ci réew mi euh, Aziz est que dafay def ndax xaalis. dama la wax ne la dinaa leeral tey dara bi may Aziz Ndiaye di jàppale ci politique boobu président jëlagul réew te boobu ba ma woo di ko wax boobu xaalis taxul déggoo ma ne ba may tuddee làmb stade Iba Mar Diop laa toog yaakaar na alaaj ngañ fekk na ko ñu jox ko micro mu ne làmb ji mag gi kat tuddee naa ko Pape dafa may defal teraanga sax ci bés yu may tuddee xam nga nit bu lu tuddee bés yónneel nag boo xam ne boo ko seetee mu jar million du rek defal la teraanga yoo xam ne doo ko mën a wax ba nga xam ne xaalis taxul su ma dëgg taxul xaalis li ma ko daal fi mu tagu bu mu ndax lamu bari na coow na waxam néew ndax moom jëfam ëpp ndax euh, saa su jëfee rek bal bi tàkk xam nga làmb ji mu tëgg mooy làmb ji dàq keroog si làmb ji loolu nag yàllaa ko ko jekk leen macha allah. <laughs> Aziz le DG des ADS. Pape Maye ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla. Mhm. ndax moom tam exemple la ci réew mi nga xam ni tey. Mhm. su ko le président Macky Sall joxee responsabilité bu toll ni mu jiite aéroport bi dañ ko war a ñaanal mu réussir mm-hmm. ndax nit ku bëgg ndam la nit ku bëgg liggéey la nit ku bëgg Sénégal la aussi mm-hmm. ah, collaborateur yi muy liggéeyal ak ñëpp ñi nga xam dañu nekk aéroport nañ ko jàppale mm-hmm. xam ni bu réussir Sénégal moo réussir nit ku baax la nit ku dëggu la lépp lu mu wax ci man rek ci moom la nekk wala lu ko raw maa ngi koy nuyu bu baax a baax nit ku baax yaa ngi sentir émission Lamine émission bi dafa doy waar est-ce que mos bu mel man moom du ma waxte di waxantu rek. Hmm. sérieusement mais des na sax. Lamine bu ma yóbbu bu ma yóbbu Ardo si. non yemuñu ca. Ah. dañuy dem waxtaan ak communicateur traditionnel yi. Ah. ñi nga xam ne ñoo ñooy séq làmb parce que tey làmb tey. Hmm. man du ma communicateur traditionnel. mais damay avouer nekk bu woon communicateur traditionnel yi làmb ji du toll fii. mënuñu woon seeti ñëpp nag. non moom Lamine. waaw c'est une famille. dëgg la communicateur yi banque banqaas leen ci lamb bu am solo boo xam ni ñoom ñëpp. tey làmb kenn mënu ko wax te doo wax le président des communicateurs traditionnels. dëgg la suñu papa El Hadj Mansour Mbaye ñu koy nuyu au passage. vraiment nga xam ni ñoom. Mm-hmm. banqaas bu am solo lañ ci làmb. parti mm-hmm. la boo xam ni tey bu am solo. Mm-hmm. làmb c' est une famille la. ok làmb c' est une dem nañ seeti Lamine Thiam dogo la ñuy la ñu gisi lu bari teraanga yu bari loo doon def. ci loxoom nga ko doon jaarale. seetaan leen mbokk yi déglu leen Lamine Thiam dogo. man nag xamoon naa ni dina dara ci làmb ndax daf daan fooyee bëri Aziz dafa mën a bëri. dafa mënoon a bëre mën a mën a mën euh, moom sax xel bi xel mi bëre ci nekkoon waaye xam na ni moom du doon mbër mu contribué wu ci làmb ji neneen teraangaam ñëpp la koy defal ba bërki démb rek ci soirée téer yi bi ma fa teewee ak sama mbokk communicateurs yi xaalis bëri la yëkkati jox na ni yéen bokk leen maanaam duñu gis mu ko dina neenal Aziz su événement yi amee lu mel ni Tabaski wala Korité wala Tamxarit Tamxarit yónnee na jox nañu nag ba tey nag woo xamante nii dana jër lu mat un cinq cent nag bu woo xam buñ ko yeewee ñun communicateurs yi te lii may wax ci télévision lay waxee communicateurs yi fekk na suñ ko yeewee ñun ñëpp daan ci ndawalu ci Tamxarit ji waaye daan ci ndawalu fukki fan après <laughs> ah waaw sant yàlla rek li ma la wax rek Lamine euh, euh, euh, lamb famille la mm-hmm. te famille boo ci nekkee mm-hmm. bu la ci yàlla mënee gan tuuti da nga war a jàppale ñëpp. Mm-hmm. man loolu laa gëm te loolu laay dund. Mm-hmm. te loolu lañ ma yar vraiment. Mm-hmm. Euh, ci kanam tuuti dinañ ubbi ligne bi. ngir ñenn ci téléspectateurs yi waxtaan ak yow. waaye laataa loolu dañuy nuyu Tata Yaama Ndiaye ca Suède. nuyu Tata Jeewa Fay Suède. ak Nene Fall Gambia. loolu nag ki leen ko may sama rakk bopp di Kaaba. moo nga ca fële nga xamante moom mooy ca Suède nekk ku yàlla baaxal. ki nekk ci ligne bi yow yaa koy wax allo wax ko allo. allo. waaw kooka la. <laughs> waaw Bandarabe. Er mbokk yi kii ngeen di dégg. moom la Aziz di wax. Iliman Lam Iliman Lam Iliman Lam. waaw Aziz benn ci surprise su émission baa ngoog. waaw bii moom bokk na ci ma gën a neex. Mhm. ndax kii di woote mën naa ne suma jumeau la suma seex la. Mhm. xam nga nit su ngeen demee am relation. Mhm. ba ngeen tuddante doom mm-hmm. seq loo xam ni seqoog sax ñi nga bokk ndey ak bàyyi mm-hmm. je peux dire que c'est un ami mm-hmm. su ma nee c'est un ami c'est trop fort li may wax yàlla moo tax ma koy wax moom xam na man xam naa suñu ay mbokk xam nañ suñu ay waajur xam nañ te nit ñi ñu xam-xam nañ kii suma xarit la suma doomu ndey la mën naa ni moom mooy Aziz man maay moom benn benn lañ Iliman sa doomu ndey a ngi noonu Euh, askan waa ngoog man nag am na lu ma ci xam. ndax wax dafa baaxul. Euh, su ma nee wax dafa baaxul mooy am na loo xam ni man ak yow ak Aziz dund nañ ko. te ba léegi dégguñu ko fenn jàmm la nag. mais dégguñu ko fenn. kon kon sa digganteeg Aziz am na lu ma ci xam. ñu invité ko tey nga dégg témoignage yi dégg Baye Ndiaye dégg Ngañ dégg le directeur des ADS dégg Lamine Thiam dégg Thiat yow tey soo amee looy. témoigner ci Aziz lan ngay wax. waaw euh, Lamine maa ngi maa ngi maa ngi leen nuyu bu baax maa ngi nuyu Aziz bi sama frère bi sama xarit sama lépp. Mm. maa ngi nuyu téléspectateur yi TFM yëpp. Mm. Euh, Aziz moom su may wax ci moom wax dëgg fa yàlla dama naan euh, ah duñ fi duñ fi jógee wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. Lamine va très bon su may wax ci Aziz. Aziz jeune la comme Baye l'a dit tout à l'heure il a même pas 40 ans. waaye. waaw wax dëgg fa yàlla bàyyi am na lu bëri mu bàyyi parce que Aziz dafa di nit ki sutura. dem na sutura lool la ne. Mhm. jamono léegi dafa dafa soppeeku dafa changé. nit yi dañuy bàyyi diine ginnaaw di di gëm alal te Aziz gëmul àdduna. Aziz euh, c'est une personne qui est macha allah très très très très très très très humaine wax dëgg fa yàlla su ma waxee sama xol ñuy fees tellement ak nit yi bu ñu si si jeune jamono ji Aziz soxorul ñaanul. te wax dëgg fa yàlla gëmul lu te yàlla bi ma ci sama xol na jaay waxee ni daf je parle pas pour parler wax dëgg fa yàlla Aziz moom lañ leen Aziz laaj na te dugg maandu na te dugg si loo xamante ni yoonam nekku ci te loolu tey il faut ñu préserver valeur yi Sénégal dafa bëreetu te soo gisee ku mel ni Aziz lan wax dëgg fa yàlla tu as tu as tu as la personne bu ah, ma nee sa àdduna waaye yàlla dama naan yàlla may na la lu lu lu lu man wax dëgg fa yàlla am naa ko maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax reeram ñu ko am ak waajuram ñu ko am ak dëgg xam nañu ce qui est Aziz a valeur bu mu fii ci àdduna bi laa yor peut être nag ci wàllu yenn nit ahlu làmb yi xam ngeen Aziz ci làmb wax dëgg fa yàlla waaye beneen secteur bu ñu liggéey ñu ne xam nañ ko xam nañ la mooy doon valeur il a beaucoup de valeur Lamine comme nu Pape Mayel waxee léegi-léegi seen sañ de passage Pape Mayel suñu bu baax moom it euh, Aziz dafa jub te jamono ji lamiñ mhm. ah du du ma ne bëriwu fi de waaye ah, ah, c'est bu rare de si si si si Sénégal bi ñu nekk ak nag c'est ce qu'il détient mooy valeur numéro un ci moom jub na te lu mu wax dina ko def lu mu wax dina ko def te man lenn laa ke nawee moom mi ak rakkam Baye Ndiaye moom mooy li ñuy gën a leen di rek mais du wàllu adduna du wàllu ad du wàllu koom-koom nitu yàlla la te il a la foi te bu ci kanam rawit ni xelam dafay génn ci làmb waaye xol bi moo des ci làmb te nit moom su nekkee mais mais mais ko nañu ba sonn nee na bàyyi na waaye mënul bàyyi. mais mais Ilimane Ilimane. Ilimane ma juumulee. bii bokk na ci yu njëkk yi nga def ay intervention ci télé de wala. musuma ko def. musuloo ko def de ah. lu lu dul ci football xanaa damay def ci football. mais yaakaar naa ci làmb ngay ngay ngay ngay ci émission yaakaar naa c'est la première fois. musu ko def moom la rek moomay duggal turu euh, mais mais mais Ilimane balaa ma lay tàggu. Euh. noo gisee concept bu bees jongante bi. non jogante xam nga. xam nga la Lamine Samba moom dañ cee moom dañ cee baax yàlla rek moom moom. Hmm. maa ngi ko c'est te l'enfant terrible de la lutte en moom moom moom mooy gën a terrible si si si si si si si euh, wàllu làmb ji. Hmm. kenn mënu si moom dara nañ ko baax yàlla macha allah il est tout muy rafet macha allah. <laughs> te loolu la ñu namoo si moom plateau bi rafet na. Euh, wax dëgg fa lépp yaa ngi koy defal yàlla na yàlla jàppale. mais deux deux mois en pulaar. mais non euh, deux deux non un mot en pulaar xam naa ne dégguloo Aziz da la bëgg a weer de. non Lamina ñun ñu ne kër yi commune Haal bu yore digg digg ñu naan de neddoo jamono wala neddoo Ndakaaru waaye ñu ngi ko naan indi Ndakaaru neen commune Fuutankoobe commune Thiel ak ñaari. sowona haalpulaar min mbiɗa sowona haalpulaar min gannda wax degg faal mbaɗa salmina ciroñaaɓe fof mbaɗa salmina fuutankol fof mbaɗa salmina ceerno samata mbaɗa salmina bawam nena monira barom rewɓam e ala fof mi salminani e e ahlu haalpulareɓe jërëjëf jarama yo allah hokke jam allah jarama hokke jam asis jërëjëf iliman lam allah jarama mais asis c'est fort hein témoignage hein c'est fort quand même ah, kii moom Ah, mënu ma bu njëkk mooy te foo toll da ngay dégg ilimaan laam ilimaan laam. waaw ah, c'est un nga tey compagnon dafa am xarit am àndandoo dafa am moom laa wax compagnon mais kii c'est un ami xam nga xarit dëgg li olof di wax rek bala ngay xam sa xarit dëgg ngeen ànd tukki. Mm-hmm. wala ngeen seq alal. Mm. ci ngay xam kii sa xarit la wala sa nit la. Mm-hmm. moom suma relation ak moom li gën a day waar mooy dañoo banaliser xaalis. Elimaan mm-hmm. mën nañ seq milliard te duñ def compte. Mm-hmm. man ak moom lan moo ñu jig mm-hmm. ñu bokk benn bis bu ñuy jógee àdduna rek mais suñu bàyyee suñu ginnaaw mm-hmm. dinañ jaaxal sax suñu ay mbokk dina compliqué trop parce que man ak moom dañu egg fu sori suma xarit la suma doomu ndey la c'est un frère loolu laa ci mën a wax et nit la koo xam ni xarit yi moom mos am yëpp moom rek laa ci tuddee doom kon c'est très fort. c'est très fort voilà kon euh, Mao Cissé laataa loolu maa ngi nuyu nag suma benn rakk boo xamante ni saa yu mu lekkee pom moom la. Eh, Ibou Sène doomu Maodo Sène fële ci Las Palmas nekk suma xarit nekk suma rakk nekk lépp ci man Ibou maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare bu baax a baax di ziyaare Mansour Lo ak Marème Dieng ak Ami Dieng ci Mbour Mané Lo chéri Mansour Lo ak mami chéri euh, Ladiang ci Pikine ñoom ñëpp maa ngi leen di ziyaare di leen bëggee bu baax a baax euh, léegi Mao fu ñu jëm ah bon ah ça c'est fort Mao bàyyil doomu jàmbur ji wala ngeen jox ko mouchoir yu bari Hmm? am na lu xewaat de. am na lu xewaat de nee ko alo allo. allo. waaw. waaw kooku. alors génneel foofu réseau bi dafay xaw a daw tuuti ki mu doon moo koy waxal boppam ki mu doon kan la dina leer léegi alo allo. allo oui. ah. maaw nañ defaraat maaw nañ defaraat euh, euh, tuuti euh, réseau bi parce que dina ci dina ci dina ci dina ci am solo lool ñuy Ndiga Dia mooy mooy souhaité joyeux anniversaire ak mam ak ki nga xam ne moom la ñuy wax mamaa Khady Fall ci HLM Grand Yoff moom tey lay def anniversaire am Ndiga Dia borom Solma moo koy souhaité. joyeux anniversaire loolu mooy li nga xamante ne ni moom moo ci am ñu dalal euh, ki nga xamante ne ni moom mooy Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye euh, tey coow lu ci dëkk bi laataa ñuy jël ku mooy Rocky Balboa Bombardier bañ nañ ko bëgg nañ ko mais man li ma ciy wax mooy du ma mukk autorité CNG li CNG wax du ma ko du ci awma lu ma ci teg awma lu ma ci dindi waaye laataa loolu mooy li may wax rek mooy sauvons le combat loolu laa wax mooy sama kàddu yi ma ci teg am na ku nekk en ligne Aziz ne alo alo alo allo. waaw waaw eh, président de de Ndiambour. waaw le président de Ndiambour waaw. mais mais mais félicitations. Ah, merci beaucoup tey maa gagné Guédiawaye. ah ah félicitations yàlla na ci ay ndam yu bëri topp. amin amin amin amin ci yàlla jox la yu bëri. amin amin amin macha allah. waaw yow moom sama jarbaat la. le Don King de l'arène. wala le Don du football. le eh, le Don sport. du sport. <laughs> oui. mais papay jàmbur loo may snobee nii doo ma nuyu. ah. mais papay jàmbur loo may snobee nii doo ma nuyu. waaw ah oui ah oui. yëkkati tuuti yëkkati tuuti sama code sax parce que. man ah, gëj naa ci bi te fi mu dama soxla buzz. yow yow maay sa papa. ci leer. waaw ah, leer leer sax. ci bu leer papa Aziz a ngi noonu ñëpp xam nañ seen diggante. waaw collaboration dugg na seen diggante mu nekk sa doom. mu nekk sa xarit mu nekk sa jarbaat. tey ñu invité ko ci émission bi dégg nga tey famem li ñu wax. mais sa témoignage tey boo koy def ci Aziz ñëpp xam ni doo naa féq ñëpp xam ni doo wax lu dul dëgg. ñëpp xam ni da am franc parler te doo ànd ak képp koo kenn koo xamante ne nii da nga koy jay Gaston Mbengue Aziz Ngo. waaw euh, dëgg la dama waroon naa gën a kontaan sax soo ñëwoon fekk ma ma toog ñu nekk man a yow face à face ma mën a wax bu baax ci Aziz. maa ko bëggee nii. waaw yaa ko bëggee nii. waaw nii neex na. parce que déglu naa ñuy def euh, ñi interview yëpp déglu naa ko. Mm-hmm. te ñooñu lu ñu wax lépp mën naa ko confirmer ci yoon lu ko teg. Mm-hmm. parce que euh, àddina dañuy wax ni ni nga mën a def bànd ak ay jaamur soo ko defee ànd ak say mbokk. Mm-hmm. te moom ànd na ak ay mbokkam. naa ni mu mel. te eh, yàlla def na boole parce que Aziz bi muy dugg ci làmb li ma gën a ci moom yaayam dafa taal otoom ñëw ba Louga fekk moom ñëw dénk ma Aziz et eh, seytaane sax bari na doole nga xam nga seytaane doole ñu bari yëpp ci làmb biir làmb ji la ëppee mm-hmm. waaw mais nag eh, yàlla defar na ba nga xam ni moom xam na fi mu ma teg man ma xam ko mm-hmm. Aziz defal na ma teraanga àddina bépp fekkee bi ñu bi nit ñi demee bay wax Aziz Gaston dafa ni dafa am lu nekk suñu diggante mu invité ma ba biir Almadi ci benn soirée signature de contrat bu mu doon def. Hmm. keroog chèque bi mu ma jox ba léegi gaa yaa ngi laajte ñaata la mbéy du ko xam. Hmm. def ko ci enveloppe jox ma ko. Aziz euh, dafa ma jàpp ko Aly Ndiaye papam tey dinaa ñëw fekk mu amee xaalis bu bëree bëri ay millions yu jeex ma jël jël ko jël moom du ma ko la du ko wax. xam nga loolu ci Sénégal tey jii lu ma yor tey su ko bëggee da koy jël mais man lu mu yor su ma ko bëggee dama koy jël. Mm-hmm. loolu yàlla dogal na loolu. Mm-hmm. mu nekk it euh, mu jox ma it respect. Sénégal nag ñu bëri xamuñu ko ndax euh, ñu bëri dañ defan rek euh, mooy xale yi tey eh, ay topp àddina et tout ça mais liggéeykat la vraiment man li may def dama koy ñaanal ñaanal ko ni mu jubóog ay frère am jubóog ko ay xaritam ñoom Elimane Lam yooyu. jubóo koog Sénégal et yàlla di ko xiir ci lu baax yàlla na ko ko yàlla gën a mën lu amiin yaa rabbal aalamiin mu nekk nekkoon nit ci làmb ji def ci def ci làmb ji loo xam ne it ah ñi ko fi def bari wunu de ndegam am na ko fi def mhm. man de jiitu naa ko ci làmb def naa lu ne ci làmb mais ji lu euh, diir bu gàtt bi ci def daanaka def na ci li ma def lépp parce que dem na fi ba def fi ay événement yoo xam ni ah, ñi ko ñemee def bariwul de nit nag mën naa xam xamee coow ci wax man ngaa tëgg sax làmb yu ndaw def di fexe mu nekk làmb yu rëy rëy mais yenn risques yi ah gaynde njaay da ko koy jël mm-hmm. waaw yenn risques yi mm. benn ko benn combat nga xam ni nit mën na cee tëgg juróomi komba mm. togg ko nag ba nga xam ne dangay mel ni dégg nga maam yaa tas dëkk mm. loolu am na mais euh, nit mën na ko mais tëgg li euh, mu doon tëggee làmb benn at nga jël milliard wala lu ko def ko ci làmb mhm. kooku moom euh, mën naa koo seedal te it nag mu am ñaaru ñaanu jur itam parce que dama xam Aada Njaay bu baax di toog di waxtaan ak moom it mooy wax ci Aziz baax mhm. li ko firnaal rek mooy euh, Baye Njaay moom muy rakam gis nga lim wax léegi ak yéen ak caat ak ay xaritam ak yëpp man mën naa leen a euh, xamal daal que loolu ñu wax lépp man mën naa koo dëggal parce que xam nga comme ni nga ko waxee léegi rek man du ba jaay kenn ba dugg kenn feesul sama bët. dëgg la doo jëndal kenn fasu yaa bi lu ma gëmul lu ma ko wax. dëgg la. lépp lu ma wax rek ci dama ko gëm. dëgg la. li mu war a def ci làmb def na ko ji. Mhm. na ko na ko waa Sénégal xam ne noonu. Mhm. léeg-léeg euh, xam nga damay toog sax di wax làmb dafa bari naa fekk léeg-léeg keroog dégg naa ko ci benn télévision defe naa RTS la. Mhm. mu def benn euh, seede bu baax ci man. seetaanu ma ko sax mais. nit ñi ku jóg nii waaw ah gis nga Aziz de seede yim la defal yow de yaa bi woon lii ma ni leen mosuma fee wax dara lu ma fi waxoon it ñoo ñoo ko waxandoo woon man la ma daan risqué di ko def daaw ma tàggu kenn moom su suy risqué def dara sax te mosula def dara lu moom dan dan dana ma tàggu donc lépp lu ma waxaloon ci lu baax rek man mii waxal naa ko lu ko ci lu baax te lépp lu ma waxoon loolu rek man maa ko delloo tey. nit ku baax la xale bu baax la xale bu yaru la. Eh, eh, Pape Mayel mi ngeen tudd léegi di sama rak man ak moom ñu jaar fu ne Pape Mayel di nit ku baax. ku ko tuddee lam war nga ko tuddee lam. Malick Gakou mi frère am di magam it nekk ci Géejawaay. moom it seen diggante ñoom ñaar danoo mel ni ay ceex. Mm-hmm. maa ak Aziz ni mu respecté. ay ñu bokkal ndey ak baay noonu la respecté Malick Gakou parce que dama mel ni ñu bokk moom ndey ak baay. Mhm. Aara Ndiaye mën naa seede loolu. Mhm. donc ñuy ay nit ñoo xam ni politique nag taxul may wax de man grand parti laa bokk mais politique ñoom grand parti leen ji ñoom ñoo jiitu grand parti. Mhm. waaw. waaw Alaaji Gasso ñun dañuy liggéey Sénégal. Alaaji Gasso. ay parti politique ak yooyu ñun xamuñu ko. mais nag ñun liggéey la ñu xam. moom liggéey la xam may liggéey. ku ne nag am nga droit dem fa la neex nga bokk fa. Mhm. su jotee nga defi ko su sport jotee ñu def sport. Mhm. ñun def noonu li ñu waroon def je pense que li ñu def ci làmb yi def ko ci sport bi su ko Sénégal yëpp defoon ci secteur bu nu nekk tey jii émergence bi ñuy wax kon te eh, eh, eh, passé woon nañ ko bu yàgg. jërëjëf. donc nag euh, wax lu baax pour sa moroom mhm. du yàq dara ci sa mbaax. mais gas. xale bu baax la xale bu yarul. gas waaw ci benn moo concept bu beesu jongante bi noo ko gisee. non yow yow yow xam nga yow daan nga wax kii mooy jinne caméra yi mais yow yaay jinne yaay jinne présentateur yi. <laughs> <laughs> yaay yaay jinne présentateur yi yëpp nag maa ko wax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Gas man lu ma waxee ñeme naa ko. jërëjëf Gaston jërëjëf jërëjëf ñun li ñu bëgg rek. mooy maa ngi nuyu TFM yëpp di nuyu Youssou Ndour. Hmm. di nuyu liggéey ñëpp. gars yi sax man maa ngi def foofu ginnaaw suba ci kii bi. yeewu leen bi. non man xaar ma maa ngi maa ngi am ay affaires yu may waaj ak yow. waaw mais mais pas moom bay naw. non non non ci leneen la ñuy waxtaan. waaw ñuy waxtaan ak ñii. jërëjëf Gaston jërëjëf Aziz ci Gaston deux mots balaa ñuy ñëw nag ci émotion yu dëgg parce que émotion yu dëgg dañ ko dencoon na ah. bëggoon nga décontracté wu tuuti reetaan tuuti mais Aziz ah Aziz nee naa rangooñ mook derete yam caaxaan génnewu ko pablam déedéet ci gas dama bëgg a wax deux mots rek ci garçon. Mhm. nga xam ni tonton sax laay wax. Mhm. c'est un incompris. Mhm. su ma nee c'est un incompris ñu ko jege xam nañ ko mooy koo xam ni boo ko soree doo ko xam mais soo ko jegee nga koy xam nit ku dëggu la. nit ku jàmbaare la. nit ku xam teraanga la. nit la ku bëgg Sénégal ku nangoo liggéey. li mu wax rek moo ci nekk. man li may rëccu. ci làmb mooy. yeex bi ma yeex a collaborer moom. ci deux dernières années yi ou trois dernières années yi. Mm-hmm. ni mu ko waxee rek. Mm-hmm. lu mu yor mm-hmm. maa ko bàyyi ci loxoom. man lu ma yor moo ko bàyyi suma loxo. mais Aziz waaw nit la koo xam ni. cër bi ma jox suma papa laa ko jox. respect bi ma jox sama papa laa ko jox. dama ko ruus sax ba léeg-léeg dama koy bëgg a woo dama ko bëgg woo. dama ko ruus ba nga xam ne léeg-léeg ma am lu ma waxtaan ak moom dama ko mën parce que xam naa ni c'est un incompris mhm. maa ngi koy ñaanal yàlla ci équipe bam bii mhm. yàlla na ko ci yàlla defal ay ndam yu kawe jortam mhm. ci yeneen liggéey yi mu nekk ak yeneen liggéey yi ñu nekk di ci liggéey man ak moom te Sénégal rek tax ko jóg muy wàllu agriculture yàlla nañ ci yàlla defal ndam yàlla nañ ci yàlla defal sutura maa ngi koy ñaanal muy tonton Gaston yàlla na ko yàlla fay li ma waxoon démb nag ak tey laay wax boo gisee ma yeex a def dara ci làmb sax moom la mm-hmm. lépp lu may defati ci làmb bu dee dinaa ko defati mm-hmm. man ak moom ñoo koy bokk def mm-hmm. su ko bëggee ñu def ko su ko bëggul ma toog xaar ba mu bëgg ko insha allah am xew lan la baal ma àq d'abord waxtaan naa ak awa buru kër eh. <laughs> waxtaan naa ak sa soxna ci lamin ci buuru këram yaakaar naa kenn mësu ko gis ci télé ah jafe na de nga wax loo ko de jafe na mbokk yi waxtaan naa ak awo Aziz Ndiaye seetaan leen ko déglu leen ko bu baax a baax nit ku baax nit ku yaatu nit ku yëg ay mbokkam man tey ji boo gisee ma fonk dafa bëgg ay waajuram moo tax man mii tey ji dama ñàkk damaa teel a ñàkk waajur mais Aziz Ndiaye moo tax tey ji su ma toogee duma xalaat sama yaay duma xalaat sama papa ndax moom sonalu ma ci dara lu ma bëgg loolu la bëgg lu ma wax loolu la wax sagal ma sagal samay rak sagal samay mag tey ji mi ngi jël sama mag bu góor suñu taaw teg ko ci wetam mi liggéey ci moom tey ji bu ko neexoon du ko def mais Aziz Ndiaye moom dafa nekk nit koo xamante nit ku oyof amul benn problème dañ koy ñaanal yàlla daal lu mu bëgg yàlla ko suñu borom bi defal yàlla jàppale ko ci kanamu njabootam bàyyi njabootam màgg ba ko koy fay lii muy def ndax man mënuma koo sant ndax daf maa defal lu rëy daf maa jàppale tamit ci lu bari moom moo tax daa jooyu ma yaay jooyu ma papa di sant sama gorotam mi xujja jóob moom mi daf maa jàppale ci lépp at aale njaay samay njëkke bàyyu ma kenn man yàlla def maa dimbali man samay waajur sëy rek lañ ma sant léegi ma ñëw dugg ci kër gi tamit Aziz Ndiaye di jóg di daanu ma nekk ak moom dama ko bëgg ndax bëgguma ko ngir alalam bëgguma ko ngir dara dama ko bëgg rek te yàlla tax ma nekk ci wetam nekk ak moom du ko jàppale nag ci lu bari xooluma daraam bu ma joxee baax na bu ma joxut baax mettee teewut xujo jóob tamit daa nekk ci côté bi tamit di su ma toogee su ma yor moo may jox su may dem xew moo may jox léeg-léeg damay dugg sama biir nekk fekk mu tegal ma ay yére du bàyyi gañ laa du bàyyi jasneer du bàyyi brodé du bàyyi dara tey bu ko neexoon du ko def. xaw na yàqu ba mu dem te ma nekk toog ci kër gi tamit du muñ ndax sëy rek laa bëgg xaw ma caaxaan xaw ma taxawaalu kenn du ma gis fenn toog sama wetu jëkkër di ko jàppale. lu ma jox baax na lu ma joxut baax na sonaluma ko ci dara te man yàlla dafa maa dimbali xaw ma wax xaw ma dem xaw ma dikk toog sama wetu jëkkër samay wetu goro samay njëkke lu may def samay njëkke laa koy àndandoog def lu may waxit sama goro laa koy waxal. Aziz ndax bi mu mettee saalitoon na. xawoon naa saali tuuti nag <laughs> waaye nag dafa nekk nit ku baax ku am ngërëmu waajur moo tax nag dara am du yàqu te pare du sonn ci dara. ndax dafa nekk nit ku baax Aziz Ndiaye moom dama koy ñaanal yàlla rek yàlla bàyyi ko suñu kanam ak ci kanamu njabootam bañ koy weere ko weer moom nag yàlla da koo dimbali mus sa tàng moom moom dafa nekk nit ku oyof Aziz Ndiaye lu ne lay def day fa day fo day kaf day fecc sax da koy def dafa nekk nit koo xamante ni moom man dama cee sant yàlla ba ma yàlla boole ak Aziz Ndiaye dama cee sant yàlla bu baax ndax dafa nekk nit koo xamante ni amul problème mu àdduna foo ko tàggu mu ne la demal du la tere ci dara loo soxla la mi ngi nii su ma amee problème su ma ko waxee mu tax taxaw faj ko mu jeex samay raq samay mag laa même chose. moom nag bëgg na lekk trop mais moom ceebu jën daal la gën a bëgg moom. Mm-hmm. ceebu jën moom bëgg na ko trop. chérie je t'aime beaucoup. <laughs> moom xam na loolu sax. Aziz damaa sob de <laughs> dama sob de ah. discours bi mooy dafa may reetaan la parce que Lamine. Ah. ki nga wax loo man sax mënu ma ko wax loo léegi. <laughs> damaa sob lii yëpp nag complicité Baye Ndiaye la ah. waaw vraiment lii yëpp complicité Baye Ndiaye la. comme comme ni mu ko waxee ah. Mm. moom mooy suma première femme. Mm. yàlla mi ngi def maa ngi ko takk en quatre-vingt-dix-neuf. Mm-hmm. Mosul Faye. Mm-hmm. def nañ seize de ménage. Mm-hmm. comme ni mu ko waxee rek. Mm. waajuram ak bu góor ak bu jigéen dañu teel a génn àdduna mm-hmm. mu jël ma def ma papa def ma yaay mm-hmm. fekk na bi muy metti mm-hmm. fekk na bi fi dara nekkagul mu fekk bi mu metti fekk bi lépp di yàlla def sutura ñuy sant yàlla macha allah yàlla yàgg nga xam ni moom dama koy ñaaral c'est ma suma jabar la mais nit ku baax la. nit la koo xam ni ku oyof la comme ni mu ko waxee rek. tey soo tegoon fii 10 million li mu ci soxla rek lay jël. du ma sonal ci dara. du ma ni jox ma duma laaj lu ma amul. du ma teg fitna. du ma teg coono. kon dama koy ñaanal yàlla. ndax jigéen bu demee bu jural la ki nga tuddee sa papa. ak ki nga tuddee sa yaay. da ko war a ñaanal ma gudd fan. ndax moom loolu la ma defal mm-hmm. kon maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla saxal ci kanam njabootam pareegu ma de boo parewul foo jëm ñaari soxla nga am waaw loolu dëgg la waxtaan naa ak aaw bi waaw waxtaan naa ak ñaareel bi ah ayca bismillah ñaareel bi tamit wax la ah. mbokk yi ñaareelu Aziz Ndiaye pour ma wax ci Aziz dina yomb dina jafe dina yomb parce que ku ma xam la te damay kontaan si wax ci moom dina jafe parce que peut-être miinuma lu jëm ci affaire télé génn et autres ma yaakaar ne dina xaw a jafe côté boobu mais pour ma mën a wax ci Aziz yaakaar naa ne lu ma yomb la ci gàttal daal nit ku baax la nit ku baax la nit ku yiir njabootam yiir euh, képp ku ko jege. jafe-jafe comme comme couple bu nekk y a des hauts y a mm-hmm. euh, comme àddina aussi tey mu neex suba mu naqadi. voilà ci ci. àdduna waaw mooy euh, jafe jafe na jafe euh, jafe na jafewul. Mm-hmm. jafe na parce que jeune buy wut métti na si moom mais aussi mu nekk nit boo xamante ne liggéey laa ko xamee. se donner à ñafeñ léeg-léeg nag mu métti. comme àddina rek comme ñëpp comme pour ñëpp comme képp ku nekk jeune di wut mu metti mais léeg-léeg tamit mu neex comme partout Aziz 6 heures du matin lay yeewu 7 génn na këram bala mu ñëw guddi kon xam nga kooku su yeggee fenn fii te nga xam ne du nit buy tricher du nit buy wax lu dul lu dul dëgg nga xam ne nit boo xamee ne lépp lu muy wut ci woom ci yoon la koy teg kon yaakaar naa su yeggee fenn fi warul a bett macha allah te am na luy des luy ñëw incha allah. nit bu bari yërmande la li ma koy wax mooy juste yoon bi mu nekk bu ko si dara dévier c'est-à-dire que soo nekkee si yoonu dëgg bul ci ragal wéet bul ci ragal. ndok-ndok parce que ndok-ndok ak àddina ñoo ñoo ñoo ànd bul ci ragal wéet parce que tôt ou tard nit yi dinañ la fekk si et que dëgg mooy njëkk mooy mujj léppam lu muy def si àddina moom li ma koy wax mooy na nekk lu dëggu na nekk luy dëgg te mu nekk ci yoon ci muy persévérer jëm ci kanam euh, nit bu social la kenn waxatu ko parce que Aziz yaakaar naa ne à chaque fois su ngeen koy gis ci télé ci cadre làmb bi muy tëgg laa mën a wax parce que tey ci loolu li ñuy wax vous le voyez tout le temps il est entouré de sa famille de ses frères papaam sax mag la mais terewul tout le temps mu ngi jug di ñëw di koy encadrer yaakaar naa ne ak ay am di jàmmam ay xaritu démbawam ñoo xamee ne moom ñoom ñoo defandoo lu bari yaakaar naa ñooñu ngeen koy gisal tout le temps xaritu àddina nag day dox nga xam yeneen nit dina am tey ñeneen ñu yokk mais yaakaar naa fu ñu gis Aziz dinañ ko gis ak ay nitu démbam nitu tayam ak ay frère am papam famille je crois que loolu social rek weesuwul loolu. nit la boo xamante ne mën na reetaanloo nit mën na tooñ mën na chayute comme añ ceebu jën moom bëgg na ko. voilà bëgg na lekk. reer aussi comme reeru ñëpp rek. loo ko toggal moom amul amul la euh, par exemple mu ne la lii voilà nit la boo xamante ne loo ko defaral dina ko dina ko lekk su neexee mhm. voilà buggul aussi añ bu naaj loolu daal xam naa ne bëggu ko tàng na xol non non as du gàtte waaw il est passif et puis que euh, mën na mer ni comme nit bu nekk mais dencul dara ci xolam je suis de tout cœur ak moom ñu ngi koy soutenir comme li ñu mën et aussi que je l'aime <laughs> <laughs> Aziz yaa ngi reede waaw maa ngi reede non ñi ñi wax loo c'est beau de ah wax loo leen jawe moom wax loo ji moom Ndogoy Ndiaye aussi hmm. sama femme suma jabar la hmm. que moom mooy doomu Momar Ndiaye bu bu Fass hmm. di Momar Ndiaye bu gendarme maa ngi koy nuyu bu baax ak suma goro yu baax yooyu di Ndeye Khady Babou ak euh, vraiment ak Ta Abi ak ñoom taa Taama ñoom ñëpp maa leen nuyu suma goro yooyu moom femme modèle la jigéen la bu baax suma jabar bii ndax tey xam naa ne sax mooy suma jabar bii ñëpp li ëpp lu ñu gis mm-hmm. et lu bari si moom lay dal lu bari ci kawam lay dal mm-hmm. mais ma koy gërëm bu baax mm-hmm. di ko ñaanal yàlla parce que tam moom mooy yaayu seex yi ba pare nekk yaayu Seydina Mohamed donc c'est ma femme yàlla mi ngi ñu boole en 2007 boobu ba léegi maa ngi góor góorgóorlu ak moom muy metti ñu ngi nekk muy naqari ñu ngi mel ñu ngi nekk mu nekk nit koo xam ne tam nit ku bien nit ku baax la nit la koo xam dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla suturaal mhm. ak njaboot gi ñu yàlla jox yàlla na leen yàlla màggal mhm. moom ak ay rakkam comme ni mu ko waxee rek man ak moom ak ay rakkam ñoo dëkk mhm. maa ngi lay nuyu de passage ñoom Mati Ndiaye bu ADS ñoom ñëpp fekk nañ leen kër vraiment <laughs> moo yor suma doom maa ngi leen di gërëm bu baax moom maa ngi koy wax mention ko waxee rek man ak sama jabar yi dañu complicité boo xam ni léeg-léeg ma tëju feccal leen wala ma wayal leen ba laataa mooy ñëw sànq rek dama dama ko doon feccal sax bien avant may ñëw ci émission bi mm. kon maa ngi koy gërëm bu baax mm. moo suma première femme bi ñoom ñaan ñëpp maa ngi leen sant mm. di leen ñaanal yàlla na leen yàlla xam naa sénégalais yi nee nañu mais soppeeku bu gaaw bi Lamine Samba soppeeku nii lan la da non man affaire rek man ngay jonganteel te daan nga bàyyi naa la non naa la léegi nag mbokk yi gis ngeen chemise ba tay mais chemise bu am fil bouton mosoo ko gis de. non mosuma ko gis ab chemise la nii am fil bouton xam nga kook kan la. kan la solma ak ni nga jaa. waaw ni nga jaa tam. <laughs> vraiment mën naa naan non ni nga jaa jeune jeune la bu ñu war a encourager. ndaanaan xam nga jeune entrepreneur. Hmm. c'est important. Mm-hmm. et que moom ku bëgg def dara la. dëgg la ku bëgg a def dara nag ku mel ni Ndiga Dia def la ni mu la def. Mm-hmm. on le félicite. Mm-hmm. gentleman la. may wax na gars di sol sol ma. ndax c'est c'est c'est. 77 418 14 14 77 418 14 14. ak Ndiga Dia du yomb man rek ci xale. non doyuma dañ may jiiroo mbokk yi Aziz. waaw am na lu xew de pareek moo ci émission bi de. la moo xew ndax léegi la ma réalisateur bi di wax ne ma. serveur vocal bi mi ngi toj. sa mbokk promoteur yi. Mhm. say am di jàmm. Mhm. say xarit. Mhm. ñi la xam. ñi la xamul. ñëpp ñu ngi ci biir serveur bi. ci kanam tuuti dinañ ubbi antenne bi mu ne ma ñoom prince. ñoom kanji ñoom xaaye géey ñoom ñëpp ñu ngi rang. ñoom ñaakase ñoom ñëpp ñu ngi rang ci li nga xamante ni moom mooy serveur bi bëgg a woote. waaye EDK. Demba Ka. EDK. dafa leer ni. EDK ci jëmmi boppam. ku bëgg essence bu baax dem fa ku bëgg gasoil bu baax dem fa. ku bëgg jàkk mbaa juma ma nga fa. lépp lu waay soxla EDK du jaay lu ñuy tere. lépp lu ñu fa jaay lu baax la. te li ci gën a garaaw mooy EDK doomi réew mi ñëw ciy liggéey. mooy préférence nationale. mooy préférence nationale. moom mu sponsorisé jongante mbokk yi ñu dem te ñëw tey mu neex dina neex lool. lépp nag mbokk yi yéen la nii lañ ko nar a jàppee sànni xeer paase na léegi lu baax rek. acca ñu dem mbokk yi kon euh, jërë ngeen jëf mu ngi noonu kon ñuy sàkku ñëpp rek ñu dem EDK lépp luñ fa soxla mën nañ ko fa am may tàllalaat nag sama loxo Abdou Aziz ah. sponsor yëpp ñu ñëw ci jongante ndax lépp loo xam ne bëgg nga ko wane soo ñëwee dinañ la ko waneel ci jongante hmm. lépp loo xam ne bëgg nga koo jaay soo ñëwee dinañ la ko jaayal ci jongante kon jongante ngoog seen jongante la kenn moomu ko waaye Aziz am na lu xew de. wallaahi Lamine pare gu ma ci yow de. foo jëm ah. jëm Aziz sa yaay. Aziz waxtaan naa ak sa yaay. la waxtaan naa ak sa papa. encore waaw waxtaan naa ak sa yaay waxtaan naa ak sa papa Baye Alé Ndiaye waxtaan naa ak moom mbokk yi déglu leen nee nañu kenn ku ci nekk war ngaa sàkku ñaan waajur kenn ku ci nekk. say waajur wan nañ laa ñaanal surtout nag waajur bu tekki waajur boo xam ne ba muy laal yi million laaloo million waajur ba nga xamante ne nii ba muy am sutura boobu juddooguloo ñaari waajuru Aziz Ndiaye yi ñoo seedeel seen doom bokk yi déglu leen sama yaay baax na jarul di wax ñu dem suma doom la maa ko jur ci farta yàlla sunat maam la yar ko jàngal ko génnul samay loxo benn yoon ba agsi fii mu agsi xale boo xam ne dafa nuru turandoom sëriñ Abdou Aziz mi ñu ko tuddee al amin mi fi nekk moom lañ ko tuddee moom la nurool moom la jël jikkoom Abdou Aziz nag mooy xale boo xam ne wax dëgg yàlla Mamadou Lamine pour nga laaj ñu ci ñuy wax ki dañuy xaw a jafe torop ndax suñu xol moo sedd ci moom ndax nag suñu sëriñ sëriñ Abdou Aziz mii ñuy wax nii dafa waxoon ne àll jar naa nawee mat ñu ne déedéet mu ne ah kay ndax am na àll yu ko amul ndax réew mi ñu nekk fa tabaarakallaaw jaxasoo na jaxasoo goo xam ne dangay jur doom bu dencee million rek dootoo ko mënal dara jur doom dencee million dootoo ko gis waaye Abdou Aziz mii nag saa yi ñu xëyee gis ko te teraanga bépp mu mën mi ñu koy teral teraanga yépp bi ci gën a neex mooy jël sama doom yi ma jur yépp yóbbu jëkkëram yor leen na ma yaay te doon noppalu. mën naa ne sax fonk ma ba nanguwul tàggu man moo yàq moo yàq njàngam ndax su musaa jàngi su demee gisuma sax day ba génn école ba ñu bisi topp ma fu ma ne mu fekk ba fa. bëgg papaam lool lool lool lool lu mu am ci àddina papaam ak ko gën a. la jëkk a def boo may dem ci làmb yi léeg-léeg di ànd ak moom du jàpp ci loxo bi. muy loolu moo yàqam jàngam ba yàgg man nag mu photographe mu dellu di jànge waaye taxul rek su fekkee sax damaa jóge fi ne maa ngi dem Tivaouane su ma ko yóbbuwul dafay bàyyi ba ma dogtali ba mu jël xeer sànni ma ko toj sama pare-brise moo wañ ko jël ko yóbbu waaw noonu la meloon ci man duñ tàggoo guddi bëccëg taq ma lool mu jëkkee voyage dem Amérique trois mois ay ay magam la àndaloon dem Masata ak Ablaye moom trois mois rek la fa am ñibbisi nangu la toog mu dellowaat fa di ma ñëwante ba ma tàmm ma jël fii avion fekk ko Amérique ànd ak moom ñibbisi ni ma dootuma dem foo toog laay toog may naxante ak moom di naxante moom ba mu commencé di voyagé di deme ko jëw mu sa tàggu man ba fii nu koy waxe nii du mu def lu ma xamul du wax lu ma xamul moom ba mu nekkee xel te mosu am benn problème daawul xeex daawul xuloo daawul def dara lu mu mës a def daal mooy comme nii mu def nii rek bëgg xaalis xaalis moom xamoon naa ne bu ko yàlla dimbalee defal ko jàmm rek dina ko téelu wut te dina ko am. mënoon jàng la woon nag mu ngi doon jàng ci école bi ñuy wax école ah, banque islamique foofu la mujj a bàyyee. yóbbu bëggoon naa ko yóbbu sax ci fii ci école bi nekk Yaraax. ci école boobu ci école foog naa ni muy bon école bisulati ak jotu caa dem mais nag ku amoon xital yàlla mayoon xel na ko ku na woon a fonk li mu doon liggéey la noonu la juddoo ci loolu la yaru dafa juddu rek nangoo jàmbaar nangoo liggéey bëgg waa waajuram continuer nekkul xale bu am ay fon bariwul jaariwul ci foo xale yooyu. waaw ah, ci foo xale comme ay baal yi comme ay tox yooyu yëpp jaarul. man waxuma moom aw man juruma sax kuy tox far. benn doom buy saxub sigar amul doo sama kër boo ci doon dugg laa yow mi din doo farum ne ko aw doom buy tox aw ma doom buy naan aw ma doom buy carte aw ma doom buy dem grand place aw ma doom buy génn guddi amul ñoom ñu kenn ko ci def moom ñii ma jur ñëpp nag moom ci loolu laa loolu la yaru loolu la xam su mosaan xëy na ay yaay moo joxoon mille francs ma ko lekk noonu la daan def école bu mu mës di jànge su ñuy def défilé bu deful défilé dootul jàng ci ba école jàng ne banque islam jàng ne lycée Limamou Laye mësul jàng ci école yu ndaw yi nit ñi di jàng fa tabaarakallah bi mu nekkee mag bi mu defee bi mu demee lycée Limamou Laye def bac amu defaat bac amu def na ñaari yoon bac amu ko mu ne dootuma jàngi man ab des dama nga jàngi jàng dafa baax te des na du ci kanam jàng day xew mu ne ma yaay wut xaas wut xaas rek la maa njëkk jël 200000 francs jox mu ne ma damay yare ginaar di jóge Géejawaay di dox ba buntu pikin ci pàkku làmbaay bi yar fa ay ginaar di doxee Géejawaay Pikine ñeenti yoon par jour ñu ne xëyee Géejawaay dem buntu pikin yar ginaar jógewaat Géejawaay ñëw añ si jógewaat fa ay gontaat dem seeti ginaar yi jógewaat fa Pikine sept heures ci guddi ñëwaat ci kër gi waaw bàyyi ginaar la woon def na ginaar bi mu defee bak amu ko rek ginaar la njëkk a def def na ginaar de wax dëgg yàlla fa tabaarakalla bu bëggee dégg dëgg rek rampé na lii mu am nii nag papaam mu dollu ko ko de papaam dëgg la fa tabaarakalla fekk na ko nag mu am xaas mi xam dafa jóg rek xam yoonam fu ñuy wute xaas mu aw ca. man la mu nekkoon ba miin ma ci làmb man ndax man bi ma nekkee ca kaw ga 1960 ca Kébémer. ma daan bëri ci làmb yi booba ci waaye mosuma bëri Dakar làmb kaw laa doon bëri. ci mbappat yeeg ci arène mi ndaw yi sama mag ba bokkal ndey moo nekkoon boobu arbitre la bi ma ñibbisi fii miin làmb di ci taan làmb xam naa ci làmb lu bari kere bi robel di daan mm, maam góor gi fii ci eh, école bi ñuy wax école eh, Maguette Fall Pape Gueye Mé Fall Pape Gueye Mé ba fa lañ fa lañu baase woon fu naa ni su jumul grand sëñ de Dakar moo tëggoon làmb ja lu waaye wax mu jooy te loolu xol a koy def ci nit nit bu rafetul xol yor say rek jiite leen buñ la tooñee xanaa yow yaay ñoom ñoo nga war a jooyloo waaye moom rakkam yi ñoo koy jooyloo lu rakkam wax mu jooy. Moustapha Gueye la gën a miin a làmb miin ko miin ko kër bi mu njëkkee di ànd ak Moustapha Gueye di ko Gaston ah ñun de am nañu mbër mu bees ñu ko kii du mbër la kii doomu Aala Njaay la tax Moustapha Gueye lool ba yàgg mu jékki-jékki ñëw benn bi seet sama ne ma papa damaa jënd licence damay def manager ma ne ko damay def promoteur ma ne ko promoteur mun ma waaw. moom ma ne ko loolu du am muy naaxanteeg man ba dugg ci bi mu ci duggee ma dem seeti Gaston boole koog moom yaayam jóge fii dem Louga seeti am euh, magi Gaston aminta mbay nga waxtaan ko boole koog moom mu ànd Gaston di dem waaye nag xam nga làmb dafa doy waar te itam euh, nit ñi dañ dul bàyyi weer ci benn fan. ñi dem a dem ba jaxasoo ba mbir mi xaw am ñu xaw a am réeroo tuuti waaye yooyu yëpp réeroo xale la rek lu ñu demee réeroo assis continuer di gën di foncé di dégg Gaston tam di dëgg mu dem ba yàgg ma ne ko assis dangay bàyyi làmb parce que xale nga te ñu ngi fekk ñoo la mag te nag dangay xaar tuuti ci kanam mu da mu nekk mu def la ma doon wax nangu daal di bàyyi bàyyi juróomi at tëggul làmb kon na ci liggéeyam ma woon ko yoon muy liggéey def commerce bi de àgg mu def transport yem bitim réew ko ñu dem Siin di dem Siin di ñëw di dem Dubaay ba yàgg mu dugg ci commerce alimentation def suukar ceeb dëwlin ne ci yàgg moo ma ne papa dama bëgg ma bëgg tëgg benn combat rek mais ndax man combat lan ma dafa benn jigéen bu tudd on aussi mi ngi nekkoon Gabon donc Aïda Diop Gabon. Awa Guèye Gabon daa bëgg ma tëggal ko làmb waaye ci boobu laa yem man ko ah kon ci boobu nga yem de man ma Awa Guèye ba mu nga may nax man ko tëggal mu tëgg làmb ji tudde ko Awa Guèye Gabon continuer làmb ji réussir noonu la ma naxee continuer waat continuer waat. ba ba far ma rek ma ne ma xam ne pexe amul te boom comme comme sama doom la bëgg na ma te nit nag lu doom bëgg da koy bëgg may ma summi ko jàppale ko ci ni ko nag euh, garab ci kaw lay comme garab day fekkaata ci kaw noonu te fekk nga leen ci kaw continuer la bul dellu gannaaw noonu la xuusi ki làmb ci continuer ne ci ne ci ne ci ne ci ne ci ba yàlla agsi ko fi mu ko agsi ñaar fukki junni laay laaj deux cent mille laay laaj te duma ci wax wax ju neex de dama ne Abdou Aziz aloo ci loo ne mu ne maire Diop te sa baa daana mu nekk ñaar fukki junni ma ne ko ñaar fukki laa am soxla moom laay laaj mu ne ma ana taxi bi dawal ma ko taxi bi yoruma ñaari junni par jour lu mu mën ci man mënul ci man dara yónni ma ñaar fukki junni wala mu yónni ma ñeen fukki junni barke rasulullah mi ngi daaw tamit waaye fere yi ñoo bari xam nga réew mi de Abdou Aziz jëndal dama camion muy liggéey may lekk mu gënal ma taxi may liggéey may lekk gënal ma oto bee bees sax Lamine Samba at mu nekk mu jox ma billet ren mu yóbbu sama rak yóbbu sama doom barke moo am met ñaar fukki junni sax moo ma tax a jóg nii ma toog laa ilaha illallah xaar ko ba mu ñëw buy ñëw dima jox ñaar fukki junni. li ma koy jëkk wax daal mooy fexeel ba bul dugg ci pertement bul lépp xaalis di ko ci def bul de bul jël pere di ko ci def loo wax ak mbër daal nay fekk loo man su dee loo man wala loo am man ma jox la ko waaye bu la fexeel ba bu la mbër fay ko si bu la kenn fay ko si loolu daal laa koy ñor muy dem di dem di dem ba combat yu mujj yi nag. xale yi jàppale ko ci baay jàppale ko ci masata ñoom jàppale ko ci ba muy dem ba mu ne ma papa daal sonn nañ ma ne ko ne kon mu sonn na ngeen bàyyi leen mu ne ma ma ne ko bàyyi kon nag si liggéey parce que yow li ngay liggéey làmb motu ci un sax cent làmb ci gën a tuuti xam nga de làmb nag jox na la coow ndax làmb politique day jox nit coow làmb yóbbu na laat fu bari tax na ñu bari xam na man mii sa baay sax léegi bu ñu nee as yi dañ naa as yi Alla ba ci yow mii moom ngay wax soo wax ci télé bi da nga naa am Aziz Ala Ndiaye léeg-léeg ma dem ci biiram ñu naa ma xamu ki may xanaa ki may Papa Aziz ñu ki ma Papa ma ne Aziz yow léegi nag yaa ma gën a siiw fu ñu dem na ñaa ki may Papa Aziz yal na la yàlla may wér may la gudd fan ci dara jëg bi ma yóbbu at mu ne yàlla na ko yàlla teral ba ku mu bëgg a teral mu teral ko ci dara jëg yonent dama ko ne su ma sañoon réew mi yëpp yàlla leen di jox dépasse sa xol may na la ko sa xalaat may na la ko fa tabaarakallaaw wax dëgg yàlla Lamine Samba Abdou Aziz daal gudd fan rek laa ko ñaanal ak bi <laughs> ah, tey moom ah. vraiment mais ñii nag ce sont mes amis xam nga man. sama yaay la may tooñe quoi ni ma yow. amoo ah, yaay papa nga am parce que man sama papa ñu wax lu bari. c'est mon ami et dañu am intimité boo xam ni depuis bi ma nekkee xale la ma moom comme ni mu ko waxee rek ma nekkee xale même suy dem fenn su ma yóbbaalewul damay jël xeer dóor ci pare-brise moom yàlla moo def bi ma nekkee xale tey li ma mën a wax mooy ñun ginnaaw daara sëriñ Mor Diop bi ma demoon ma koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla waa Daara Serigne Mor mi nga xam ne moo ñu dalal alxuraan nga xam sama moo ñu fa yóbboon ñu fay jànge maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak taalibe Serigne Mor Diop yëpp nekk parcelle unité 26. ginnaaw foofu man xaw ma fenn ful woon suma kër papa. maak ak moom dañu am relation boo xam ni mënuma ko wax tey li ma la ci mën a expliquer lu ndaw yàggul. man kër gi ma juddoo Géejawaay la nekk fa laa juddoo en 1979. ma tab bi ma yàlla defalee ba ma tabax kër yóbbu fa suma deuxième femme suma première femme ma tabaxal ko kër mooy kër bi nga fekk nii suma yaay ak suma papa dëkk ma tabaxal ko suma première femme tabaxal suma deuxième femme mu dëkk fii foire sama papa kër gi nga xam ne dañu juddoo moom nangul woon génn kër gi dama ko doon wax ne ko da war a génn fii dem almadi wala feneen ak feneen soo motul la kër feneen sax nga dem dëkk foofu mun ma fi këru cosaan la du ma fi génn bis bi ma xëyee liggéey ma jekki rek ñu woo ma ni ma sama kër papa dal bi dafa daanu ma ne sama kër papa dal bi dafa daanu comment ça ma ñëw fekk sama papa di defar ay bagage ma ne ko lu xew ne mun ma noo kër gi dal bi dafa daanu te lu temps ma koy nga koy defar wala ñu koy defar damay dem Tivaouane toog fa man ko yow nga jugee fii dem Tivaouane toog fa bien que am nga fa kër am nga fa soxna ak lépp mais sa liggéey fii la nag mun ma waaw mais damay dem foofu toog ma ne ko loolu xel xalaatu ko bis boobu li tax ma gën a fonk suma première femme bi ci loolu ci loolu bis boobu dama ñëw ni suma jabar sam papa këram néegi dafa daanu te dama war a tabax kër gi te temps bi ma koy tabax sam papa du dem Tiwaawan toog fa ndax liggéeyam fi la nekk man damay génn néeg bi ma dëkk ak yow ma jox ko suma yaay jox ko suma maa ngi lay ñaan nga may ma la temps que ma kër bi ma lay tabaxal te mu nekk côté Almadi fii Mamel mm-hmm. nga bàyyi ma ma accéléré kër gi mu may ma ñetti weer suma jabar mm-hmm. ni ma demal fanaan sa kër deuxième femme nekk fa mm-hmm. ba kër gi pare mais nañu génn néeg bi man a yow jox ko sa papa ak sa yaay moo tax ma fonk kër googu maa ngi ko tabaxaloon sama jabar defoon naa plus de 75 millions ma génn jël këyitu kër gi ak lépp ni yaay jëlal kër gi man maa la ko may ne sama jabar may ma trois mois yàlla suturaal ma mois et demi kër gi nekk fii ci pooru Almadies Mamel pare ma dem dëkk fa jël kër gi jox ko sama papa may ko ko moom suma yaay te nga xam ni mu jël alalam tabaxaat këram bi ñu nekk suñu booru kër nga xam ni fa lañ juddoo mu tabax ko nga xam ni man ak moom dañu am complicité boo xam ni mm-hmm. su ma toogee vingt quatre heures te dégguma ko rek dafay mel ni dafa am lu ma manqué mm-hmm. ñun mënuñu dara amuñu dara li am mooy waajur bu baax mm-hmm. mooy suñu sutura mooy suñu sakk mm-hmm. sama yaay moom li mu bëgg rek mm-hmm. damay ñaan yàlla at mu jot yàlla na ma ko yàlla may ma ko defal incha allah dama koy tooñ sax di ko woowee mère Màkka bu Màkka desee un mois rek lay commencé indi jikko indil la rakkam wala mu indil la ku ko jege ne la ñun ñi ñëpp dañu ñu dagal bi ñu dem maa ngi ñaan at mu jot yàlla na ma ko yàlla may ba mu mën di ko defal. on va parler un peu de lutte parce que temps bi li ci des bariwul mhm. te am naa ngandam surprise. Mhm. pour yow émission bi des na de. am naa surprise. dama bëgg ñu ah bon dama bëgg ñu wax tuuti ci làmb. Mhm. Aziz dafa bàyyi làmb. waaw xam nga tey lamin man mënuma bàyyi làmb pour dire vrai ndax. man damay wax rek te yàlla tax làmb daf ma defal lu nekk Lamine man damay sant làmb bu baax di gërëm làmb di ko delloo njukkal parce que tey làmb may na ma loo xam ne nii tey alal munu ko jënd làmb may na ma loo xam ne kenn mënu ko quantifier kon moi je dis merci à la lutte et remercie la lutte kon bàyyiwu la non bàyyi làmb nit du bàyyi lu mu moom. ok léegi Aziz. ci ci ci gàttal ci loolu yëpp. émission bi amul goût d'inachevé ci yow wala lépp mat na pour yow wala am na. lu non xam émission bi. li gën a cher ci man nga ma wan. gis naa ci sumay doom gis ci sumay jabar gis sumay dégg ci sumay xarit. gis ci sumay rakk. Hmm. man loolu laa am aw ma lu gën lii. léegi Rocky Balboa Bombardier. Hmm. sa réaction liir naa ko ci journal bi mais xam nga du ñëpp noonu la ñuy mm-hmm. euh, dañuy liir journal may féliciter au passage suñu làmb ndax def nañu ci liggéey bu am solo gis naa la fa sa sa benn interview non foofu li ma fa wax c'est clair man dama wax ni je suis en phase avec le CNG mm-hmm. man dama franc ci li may wax mm-hmm. li ci le président Alioune wax ak le CNG man ci ñooñu lay ànd maa ngi féliciter le président Alioune Sarr de passage di ko remercier ci esprit d'ouverture bi ma am ndax gouverner c'est prévoir et que tey su ma déggee ñu bari ñuy agité di wax ni lii du règlement ci règlement bi def ci bokk ndax nit bu ñu la dénkee mbir jox la délégation de pouvoir ni la yaa ko war a doxal yow yaa yor politique bi doxal làmb ci règlement bi CNG moo ko bindal boppam mm-hmm. jox ko expert ñu validé ko mm-hmm. ils ont plein pouvoir pour jël dogal interdire combat Rocky Balboa ak Bombardier pour plusieurs raisons yu ma xam man kenn gënu ma xam Rocky je n'attaque personne Rocky Balboa je suis le premier promoteur sénégalais bu déparé fii dem ba Suisse pour rencontrer ko parce que jamono boobu dama bëgg a leeral lu ndaw dama bëggoon tëgg kombaam ak Balla ma ni ko man duma dugg ci caaxaan ma déplacé wu dagg suma billet dem ba Suisse seeti ko bi ma demee li ma foogoon ak li ma yaakaaroon ci réalité bi ma demee gisuma ko parce que c'est-à-dire man mbër laa bëgg laa ji c'est-à-dire j'avais beaucoup d'informations sur lui ak waxtaan yu bari yu ma doon waxtaan maa ngi koy nuyu de passage yu bari yu ma doon waxtaan ak moom mais bi ma demee li ma fekk ak réalité bi ma yaakaaroon yàlla baal ma fekk ma ko fa damay wax yàlla rek tax mhm. parce que man nit mun na ma nax mais du ma nangoo nax sénégalais yi mhm. du problème mu cachet moo tax combat bi yàqu. mais problème mu man ku tolloon ni Balla Gaye su ma koy booleel dama ko waroon booleeg nattaangoom. ku toll ni Bombardier aussi su ma jógee war ko booleeg mbër dama koy booleeg nattaangoom. mais tey bi ma demee ba Suisse. li ma foogoon laa fa waroon fekk en tant que un champion boo xam ni compétir na. bëre na fa reconnaître nañ ko te il am na carrière bu toll ni suñu champion yi dam fekk moo ko fa. damay wax dëgg. et aussi tam làmb ji dañ ko war a encadrer dañ ko war a soutenir Rocky c'est un am na droit am licence mais il a le droit aussi de respecter notre sport national sur les bases yi ko régir mooy ramper même bu newul ci texte yi loo gis na dafa yenu maanaa moi je la connais très bien sànniwu ma ko xeer et tout je connais Rocky waa dem naa ba Suisse kenn gënu ma ko xam kenn njëkku ma ci def démarche mais tey suñu sport national bi dañ ko war a protéger et d'ores et déjà aussi maa ngi ñaan le président Alioune Sarr ak l'ensemble du bureau du CNG. Mm. de grâce nañ ñu jàppale ba nga xam ni. Mm. du ku jugati rek bugga nekk mbër wala ku jugati bugg nekk promoteur. mais sauvons le combat. Lamine sauvons le Lamine. man non Lamine c'est-à-dire il faut qu'on soit très xam nga bëgguma mu doon polémique sama diggante ak yow. du question que sauvons le combat mais man xam nga li may wax mooy. actuellement am nga sa sa idée aussi dañu bëgg a waxtaan. Mm. ce qu'on doit sauver. actuellement. c'est notre sport national d'abord. on a fait plus de mille et quelques combats sans Rocky Balboa. pourquoi on veut focaliser sur un combat boo xam ni y' a Eumeu Sène. parce que kenn dem na taxawal ko. joxe avance combat combat. Mhm. CNG lay taxawee. dëgg la. dañ waxante réalité. les sénégalais. Mhm. dañ leen war a respecter. Mhm. war leen jox cër. jox leen un bon produit. ok léegi Aziz. Aziz. Aziz dugg na ba sonn. Euh, munul munul woote magay mi lay defal sa sa affiche <laughs> dugg na ba sonn mu munul munul munul jàll tey suñu ubbi woon antenne bi mun ay saala biigi ay prince sama rakk jooju ñoom ñëpp ñu ngi woon ci ligne bi ah. non dafa am foo xam ne foog nga Wali Ndiaye Thiam ñoom ñëpp xoola ñu ngi woon ci ligne bi ki nga xam ni foog nga may ma ci tuuti muy Tafanaar waaw li tax ma ni Tafanaar hmm. tey le première combat bi ma njëkk a mm-hmm. taxawal en 2000 ni ko ngañ waxee en 2004. Mm-hmm. mi ngi taxawee ci dibiteri Tafanaar Pikine. Mm-hmm. Tafanaar nekkatul. ci man. nitu làmb. c'est un frère. parce que nit bu demee bay jël ay décision ci sa famille. di dugg ci sa waxtaanu famille. Tafanaar maa ngi koy nuyu di ko gërëm. ak suma xarit yépp nag. ñoom Baba Mbaw ñoom Pape Dieng. suma xarit yëpp. ak mhm. suma xalifa bopp. ok muy Masata Ndiaye nga xam ni. Mhm. nekkatul mag ci man. waa léegi ñaakase. Euh, euh, perte na vingt cinq mille duggagul ba léegi. Mhm. Euh, maa ngi ko ñaakase mu ngi nuyu Mounzir ñas bu baax mais gan gi surprise yu émission bi anamu. ana gan gi ana surprise yu émission bi. ana gan gi ana surprise yu émission bi. gan gi surprise yu émission bi laay laaj. <laughs> jabar maa ngi lay ziare maa ah, ngi grand frère. munoo maa ngi lay bëggee eh, eh, eh. maa ngi lay ziare bu wér a wér grand yëkkatil micro bi. sawaay moom kay toog yow Aziz man non man sañu ma sañ taxaw may sañoo toog may toog ngay taxaw. Aziz kay taxaw nii. waaw ah, bàyyi ma taxaw. mënoon ngaa toog rek. non Aziz jooy naa jooy jooy jooy jooy may bëgg a dee. ñoo ko bëggee woon li mooy plan bi nga xamante ni moom lañ la dencaloon. moo tax sànq ma lay wax nii. est-ce que amul lu manqué si émission bi tudd nga ko sànq. bu tudd Masata. ñu teg la deal bi ne ko non non ñëw parce que loo seede ci Aziz du doy ci wax. Masata am kàddu yu ma wax muy kàddu yu fort. Masata li des ci émission bi bariwul saraka ngoog yaa ngoog déglul way wi déglul. doom bàyyi ci man. ndeysaan. ma koy ñaanal yàlla fan ak wér gi yaram. Mm. ndax Aziz daf ma sagal. Mm. Aziz daf ma suturaal. Mm. Aziz daf ma jàppale. kii su may wax ci moom sax. wallahi lazim sama rongo ñi day tuuru te lu ma sentirul duma ko wax lan. dëgg wax nit ki yàllaa ngi lay nuyu te gisuma yàlla. Mm-hmm. kii. Mm-hmm. li ma njëkk a neex suma àdduna moo ma ko defal mooy siyaara ji rasulillahi xam man yonent bi rek laa bëgg kii day nit koo xam ni Sénégal xamuñu ko man këram sax duma fa bari ay tànk ndax fa am lu tax dama am cofeel ci moom boo xam ne gis nga nit ñi sax buñ soxlaa Aziz dara dañ may woo li ma massa naa nga ma la am te lu ma ko wax mu def ba am na yoo xam bari duma ko àggee moom xam na li ma ko wax xaalisam fu ma ko fekk maa ko moom ba oto bi may dawal valeur bi kenn xamul nu mu toll moo ko yëkkati jënd ko jox ma ko ak leneen ak leneen kii sama ñoom papa dañoo wax ci moom rek mais li ñu bàyyi moo ëpp man Aziz xaw ma lu ma koy wax sax wallahi lazim parce que da di nit koo xam ni dëggu na xam na li bëgg te dara ñoru ko lu dul fameem ak njabootam man bu ñu àndee ci oto sax ñu àndoon ci oto munoo masta kaañ dem Tiwaawan suñu dem daf ma cëral cër boobu ba nga xam ne wallaahi alazim du dawal sax day yëkkati caabi jox ma ñi may wax mën nañ maa seede te lépp lu askanoo ci sama baay jur ak lu sama yaay jur ak keneen ak keneen Aziz seq naa ak yow teraanga Aziz am na fu mu jaar ak yow Aziz nekk naa ci tolof tolof moo ci jàpp suba ak ngoon guddeeg bëccëg sama kër dara manqué wul Masamba xamul ma Demba kii yàlla laa koy bàyyeel yàlla nañu ko yàlla fayal lu mu yóotu te jotu ko yàlla nañ yàlla may kàttan guñ ko tungoon ba mu jot ko ci barkey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii daf ñu sagal kii dafa sagal askanu njaayeen lépp lu ala njaay jur Aziz dala sagal man samay rak ñépp ma déggal mais moom da cee raw ak juma njaay ñii aw seen pay yàlla laa leen di bàyyal lii mënuma koon ñàkk def ci émission bi la kii su dee taxawal ma jël palaasam wallaahi lancé barke alxuraanu karim lu ko nar a dal yàlla na ma dal tele laay waxee na ma Sénégal yëpp dégg te li may wax dafa dëggu ci man dafa dëggu ci man yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla jàppale te man xam naa lu ma ko ñaanal dina ko dal ndax su ma xol laa ko tibbee mënu ma waxee sax nii ci télé Lamine mm-hmm. mais Aziz yàlla na la yàlla fal ca yàlla na la yàlla suturaal xam nga nit du changer ni la nit ñi gisee rek mooy changer te Sénégal si tout va bien tu déranges man li ma lay ñaaral jàppal fi nga jàpp bul tiit bul ragal am nga ñaanu waajur am nga ñaanu waajur am nga say ñaanu xarit te man de su ma ñaan wallaahi lancim dina la dal mbokk yi émotion baa lii lañ ci bëggoon mooy concept jongante bu nga xamante ni mooy concept jongante bu bees ci at mu bees deuxième saison incha allahu rabbi émission bii di ñëw mbokk yi mbër mu mag lay dalal mbër mu ñëpp soxla mbër moo xamante ni nii latewul ci télévision yi maa aussi c'est réalisateur jërëjëf di Damour mooy chargé de production bi Abdourahmane Gueye moo yoroon son bi Vieux Diouf ci réalisation bi ba tey Vieux jërëjëf Mandione Mbengue sëtu buur siin ku mën Ndofène bi bàyyi Mouhamed maa ngi ziare bu baax a baax Medoune Diouf Demba Ndaw bàyyi seex yi jërëjëf Apulaay jërëjëf jëf Lam jinne photographie jërëjëf mbokk yi jongante ngoo ñi xamul woon Aziz Ndiaye xam nañ ko incha allahu rabbi ba dimanche bii di ñëw sol ma jërëjëf Mousli Couture jërëjëf làmb bi ñu leen di tàggoo nag mooy làmb ji nga xamante ne nii kiñ ñu doon wax léegi di Mansour Aw moo ko tëggoon tuddee ko première dame pour wane ni am na loo xamante ni defoon na ko ci làmb man sama kàddu dama ko ñeme koy dëggal mooy sauvons le combat jarga kana moron kayna wenden na na cawe oni silasu ndaxoya jarga kanda moron kaina wende na chawe one sira suna hoya jarga kanda moron kaina wende na chawe one sira suna hoya jarga kanda moron kaina wende na chawe one sira suna hoya jarga kanda carga kaana moroon gaynaak we nden na caawe oone hoywa carga kaana moroon gaynaak we nden na caawe oone hoywa carga kaana